rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sabi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli barke borom Tuubaa asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah nga xam ne ñoo jàkkaarloo moom di ñu seetaan fii ci <clears throat> jumaa ju mag bi ànd ak daayira bu mag bi di daayira muxadamatul xidma ngir jëm ci waajtaayu màggal Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul gi mu wootee fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar eh, nañu ko baaxoo defee at mu jot su dëkk ma lee ñëw ànd ak yéen jëm ci waajtaayu màggal bi taxawaay bi nga xam ne daayira bi amee na ko eh, leeral it ñi nga xam ne ñu ngi màggal si ni ñu bëggee ku màggal see noonu ak waajtaay yu am solo yi nga xam ne dañ ko ci amal loolu nag xam nga buñ koy def toujours ki jiite liggéeyu yoon wépp di jëwriñu si yoon wi di sëriñ Tuubaa Cheikh Mahmadul Montaxa ñu ñaan sol borom gën ko fee yàggal loolu gën a dolli ak wéram kattanal ko ba naal yu rëy yi mu naalal lislaam suñu boroom may ko mu àggale ko te ñu ànd koog moom te am ci ngërëmu sëriñ waaye ko def ci kilifteef ak njiitu sëriñ Afiya bu ko ñi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ànd ko ak banqaas yi mu ko àndal yëpp xam nga nag daayira Muxaddamatul Xidma eh, bopp bi dafa nekk ci jumaa ji waaye nag ndaw yi bari nañ ci réew mi ak ci bitim réew te bu ñu àggee ci màggal gi ñoom ñëpp ñooy ñëw màggal si te ñiy màggal si ñoom ñëpp am yittewoo ci jumaa yi loolu nag dafa laaj organisation bu mag laaj it ay taxawaay yu baree baree bare xam it booy ñëw ci sëñ Tuubaa loo fi war a àndaale ak li sëñ Tuubaa bëggal bokkul ndax li nga xalaat ak li sëñ bi bëgg bokkunu te li sëñ bi bëgg rek moo mën a jëriñ dongo bi eh, loolu nag incha allahu rabbi ci sama loxol ndijoor sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno mi ngi fi ci sama loxol càmmooñ sëriñ Makhtar mi ngi fi ñu jàkkaarloo ak sëriñ Jili Bousso ak Adi Fallou Sula mi ngi ko àndal ci wàllu machine bi xam ngeen ne daayira Muxaddamatul Xidma lépp lu nuy waajale màggalu Touba danañ ko ni waajale ba noppi nag fopp seen temps bépp jox ko sëriñ Touba duñ yem ca bernde yañ fàggul seen bopp di ko defal sëriñ Touba ci seeni kër te gan ña fay màggal si waaye dañ ànd ak loolu lépp dañuy fob seen i jëmm ak seen alal indiwaat ko ci jumaa ji wuutu fi murid yëpp yaa ngi taxawaay yu am solo ci diggante njàngum alquran organiser ay conférence def ay waxtaan waxtaani diine yu baree bari ba bañee àgg ci bis waaye xam nga ne taalibe yi fu ne lañuy ñuy jóge kenn ku nekk bëgg a ziare si li wër jumaa ji di oromi Tuubaa ak armeel yaak la ca aju lépp itam nañ bëgg ko fa nekk nekk ko foofa day laaj ñu leeral ko mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi rawatina ñi nga xam ne dañuy ñëw yor ay image moo xam ne ay télévision wala ay site internet wala ay appareil di photo ko def yëpp loolu faw nga bàyyi xel jataay bi ba xam ne lii kat la daayira Muxaddamatul ma tëral ba buñ demee duñ mën a juyoo ak moom ndax mbokk yi nag ñu bàyyi ko xel lool Bàmba ji yaatu na leebir gi bari na waaye ku doon dem Makkatal Mukarrama wala nga dem Madinatul Munawwara da ko fekk organisation boo xamante ni bi doo ko mën a xëtt benn yoon donte ay farata la yu la yàlla gàcc waaye da nga fekk ay nit la ñu ko organiser te nag la ngay nangul ñooña wala ko mën a nangu ñi nga xam ne boo ñëwee ci ak dal ak laa bi leen te dañuy def ak yow kon incha allahu rabbi dana yaatu ci biir jotaay bi waaye ci jotaay ñu fàttewaale bàyyiwaale xel bu baax a baax ne jotaay bii rek eh, daayira Muxaddamatul Xidma lu ngeen dégg ñu wax ko rek xam leen ci seen i poos te ñoo ko bëgg a génne kon dana jaadu ci nit ñi nga xam ne nag ñi ngi seetaan jataay bi te bëgg a defal sëñ Tuubaa ci weeru safar wii ñuy bàyyi xel ne li ma wax lépp loo ci man yow te ci sa war nga ko mën a yónnee daayira bi loo ci man tam nekk matériel boo bëgg war a yónnee it war nga ko mën a yónnee daayira bi ndax dañ la koy defal ci sëñ Tuubaa te amaana ku yor alalam bëgg koo def ci jumaa ji mu defee ko lool ndax jumaa ji moom du caagi ne lu jóg dem ci waaye boo ko jaaralee ci ñoom danga nga mën a waat na sama ñàq tàbbal naa ko ci jumaa ja te sëñ Tuubaa moo waxoon ne wax fir bi man banaw binaaha rafi wax fir li man amarahum bihi jami ñaan googu mu ñaan yàlla mu jéggal ñi ko doon defaral jumaa ji ak ñi leen di dimbale ña ciy jàpp ñëpp saa yoo defee saw ñaq ci jumaa yi Tuubaa xamal ne bokk nga ci ñaan googa kon nag daayira Muxaddamatul Xidma mooy daayira bi nga xam ne moo wutu murit yëpp ci loolu ci wàllu màggal gi mu jëm ci nag banqaas bi ngeen bokk muy commission culture te ku ko wax tudd njàngum alxuraan ku ko wax tudd ay conférence ku ko wax tudd ay yeneen ak yeneen ban waajtaay la ci muxadamatul xidma waajal boo xam ne dana ko mën a tegal nit ñi màggal si wut ak ñuy màggal si ci ñëwagul ñu mën di ko dund laata ñu àgg ci bisu safar ba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 télévision Lamp Fall wala ci MKTV ak mboolem banqaas yi nga xam ne lëkkaloo nañ ak ñooñu di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi nga xam ne ci lañ nekk te nekk ci jeexital gi waaye di ndokkeel julit yëpp ak taalibe yëpp ci weer wu tedd wi ñu dëgmal muy safar ñu war cee tàbbi ay fan yu néew loolu lépp nag ñu ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal Xaadim Rasul te di ko ñaanal sunu borom may ko gudd fan ak wér te defal ko mboolem jullit yi defal na ko nun itam. Euh, Cheikh Amadou Fadal ñu am mbégte lool ci jataay bi nga xam ne yaa ngi koy ànd ak Lamfal télévision ak mu Muxaddamatul Xidma ngir dalal ñu fii ngir ñu fas ne jàngat lenn ci waajtaay yi nga xam ne daa daayira Muxaddamatul Xidma euh, war na ko def. ci màggal gi muy lu aju ci waajtaay wi ak ci biir màggal gi ak buñ màggalee ba noppi xam naa laata laata laata loolu kon ñu ñu def benn taarif bu gàtt rek mhm. ndax su fekkee dama naan dañ naan dañ naan waajtaay woon waajtaay la Moukhaddamatoul Khidma am mhm. ci ci màggal gi xëy na ki ñu dab wala ki nga xam ne musta seetaan euh, wala musta dégg Moukhaddamatoul Khidma mën naa xam tamit laaj mhm. ñan ñooy Moukhaddamatoul Khidma dëgg la kon daayira Moukhaddamatoul Khidma mooy daayira bi nga xam ne moom la sëriñ bi di Cheikh Mamadul Muntaxa mi fi nekkal xaadimu rasul dénk lépp loo xam ne moo aju ci jumaa ji ak penc mi ak armeel yi ci wetu jumaa ji ak armel yi Baqiya euh, sëriñ bi dénk leen ko ngir mi di ko saytu loolu nag dénkaan loolu mi ngi tàmbale woon ci see Cheikh Saliou Mbacké ci mois weeru mars 1994 mm-hmm. kon boobaak léegi euh, ay at la mm-hmm. war naa mat léegi ñaar fukki at yu topp yu teg juróom mm-hmm. wala juróom benn mm-hmm. kon dafa mel ne liggéey boobu yàgg na ci seeni loxo euh, loolu nag li ci jiitu mooy entretien mooy saytu barab bi mm-hmm. ci lépp loo xam ne lu fi luñ fi war a euh, defar la ci loo xam ne lu yàqu la wala lu mën a doon nag ci fànn yépp loolu ci seen loxo la nekk niki noonu tamit taxawu barab bi ba ni ko sëriñ bi bëggee ak ni mu bindee ñaane ko boromam te sëriñ bi ñaan gu nekk googoo euh, dégg mu ñaan rek xamal ne moom ndigal li ñoo ànd. dëgg la ci noonu lañ noonu ni ma ko jàppee man. Mm-hmm. te bëri naa ci ay moroom jàpp na ne. loolu nag kon lépp loo xam ne mooy war ma ji yell ci ñu war koo def ci amaakina muxaddasa yi maanaam barab yi nga xam ne barab yu sell la. Mm-hmm. dafa war fii ci barab bi kon taalibe yi bi nga xam ne moom. am na pas-pas bu sell te te te def ci xolam te xam loolu loola euh, bu ñëwee dana ko fi jëfandikoo waaye ñi nga xam ne dañuy fàtte ngir ak doomu aadama mhm. tamit ñu leen di fàttali loolu mhm. kon euh, ngir teg fi nekk fi waxtu wu nekk ci lépp loo xam ne mooy sàmm worma ji ci li nga xam ne moom la fi diine santaale ñu mën ko fi def mhm. waaye lii nga xam ne diine bëgg ko lépp ñu moytu ñu moytu ko fi ci ngir worma loolu nag bokk na ci mooy taxawu jullit yi ngir ñu mën a def seen ponk jaamu yàlla moo xam julli ngay def moo xam da ngay jàng alquran wala nga ñëw ci barab bi di siyaare loolu kon ci seen ci taxawaayu Moukhaddamatoul Khidma la bokk hmm. ni ki noonu armel yi di armel yi Serigne Saliou Mbacké mi ngi ko joxoon dayre bi 2005 ngir ñu koy saytu ndax xam nga ne Touba euh, armel yi spécial am mooy ndax fépp fu ab taalibe bi nekk ci àddina bi ak ñoo xam ne sax dañoo bëgg sëriñ bi hmm. te bëgg xeetali ko bu ëllëgee ndax sëriñ bi moo ko digee hmm. fii lu wér ci ne képp koo xam ne denc nañ la fi suuf si doy na aw lay maanaam suuf si moo cay def la ma bëgg loolu am na ci xisa bu wóor boo xam ne am na mbokk moo xam ne dafa nelawoon ci njaareem ñu war koo indi sëriñ bi laaj suuf ba mu yàgg mu ne fan lañ ko jëmee ñu ne Tuubaa mu naa Tuubaa moom kon buñ demee la ma ci bëgg suuf sa dana ko def yaakaar jooju nag te ñun ñëpp xeetli ko ëllëg lañu bëgg moo tax bépp taalibe fu mu mën a faatoo ci àddina bi dañ koy indi Tuubaa mhm. kon loolu jar na taxawu jar na saytu ngir dëppale ko ak ni ko borom bëggee mhm. gis-gis boobu xëy na la Serigne Saliou amoon mu tax mu dénkoon daayira Moukhaddamatoul Khidma armeel yi mhm. biñ demee ba 2014 euh, Serigne Sidi Moukhtar tëj armeel yi ngir ubbi armeel yi bàq ya nga xam ne euh, gën koo yaatal ubbi ko woon naka jekk waaye waa mi nam ñoo ci gënoon a féete mhm. mu gën koo yaatal ci ne léegi kat joxee na ndigal na léegi bu kenn dencati fi liggéey boobu tamit mu xalaat ne daayira Muxaddamatul Xidma ñoo ko man muy le 9 janvier 2014 mu teg ko ci seen loxo ñu di ko saytu ngir taxawaay ya nga xam ne moo ca war suñ duggee ba ci biir waxtaan wi xëy na détails yi dina ñëw ni ko doon tamit comité d'organisation màggal bi nga xamee ne sosu na mi ngi sosu atum 2010 ci ndigalul Cheikh Amadou Lamine moom Cheikh Amadou Fadal mi fi nekkoon xalifa xaadimu rasul biñ gisee ne comité bi kat laaj na ay ndaw yu fa nekk yoo xam ne dañuy doon ñoo xam ne ay doomi soxna la ñu doon dañu réer ba noppi it mën a wax ay langue yu wuute ba noppi it organisation hmm. mën a jaxasoog ay kilifa wax dëgg sëriñ bi moom ci xalaatam mu xalaat ne loolu daayira Muxaddamatul Xidma dana ko man taxoon mu mu dugaloon daayira Muxaddamatul Xidma ci biir comité d'organisation kon ci seen biir ba liggéey bi leen sëñ bi dénkit comité d'organisation biir màggal ñoo ciy nekk hmm. di ak kir hébergement c'est ànd ko ak daayira wilaay nekk ci biir commission organisation bi nga xam ne Euh, Serigne Cheikh Marème moo ko jiitee ñu ànd ceeg Cheikh Amadou Bassir ak yeneen i liggéey yoo xam ne léeg-léeg Serigne bi ci boppam mooy xool xam ne lii lu war a nosu la luñ lu ñu war a teg ci xam-xam la euh, mu denk leen ko kon su ma la doon tënkal banqaas yi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma sëriñ bi dénk na ko ko ci dëkk bi ak liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci yoonu murit mooy yooyu ma tënk benn bu ci nekk nag doy na sëkk waxtaan euh, ci loolu kon loolu dana xamal wala wala bi ñuy seetaan ne daayira boobu nag lañ dalal kon jaadu na kon ñu dalal ko ci waajtaayu màggal ngir ponk yooyu ma lim nga xam ne sëriñ bi dénk na ko ko muy liggéey bu rëy rëy mhm. boo xam ne am na su ko defee nag kon nga xam ne kon bi ci jiitu mooy fii ci jumaa ji euh, nga xam ne mooy barab bi nga xam ne bépp jullit bu ñëw Touba euh, lii sa yitte mooy soo tegee sab saak nga fas yéenee ñëw ci jumaa ji mhm. am na sax ci taalibe yi ñoo xam ne daanaka duñ jaar ci kër li leen di yitteel mooy ñëw ci jumaa ji siyaare sëriñ bi julli fi toog jàng alquran xasida ba seen waxtu wu ñibbi jot ñu ñibbi ngir dundal bis bi kon su ko defee su fekkee ne bis bi nga xam ne sëriñ bi moom moo wax ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la euh, na nga ma sant la yàlla ci bis bii ndax lott naa ci sant gi lott naa ci sant gi kon loolu day ndigal loo xam ne sëriñ bi bàyyiwu ci kenn Cheikh Amadou dal moo digle ne na ñëpp ñëw Touba. Mhm. di fi defee si bis bi. Mhm. te xam nga ne ndigalul doomi ku fi nekkal Serigne Touba mooy ndigalul Serigne bi. ndax lépp lu ñu digle rek sëriñ bi moo ko digle. loola kon moo tax taalibe bi yëpp fuñ mën a nekk bu magal jotee ñu wut si Touba kon suñ dee ñëw ci barab bii kon laaj na kon ñu teeru leen tatagal leen mhm. kon su ko defee pàcc bi nga xam ne ñun euh, nekk nañ ci. ndax waajtaay wi dana am ci fànn yëpp waaye sëñ Muxtaar dana ñëw ci geneen fànn gi waaye pàcc bi nga xam ne ñun ñu ngi koy coordonné ci dayre bi muy aju ci wàllu euh, njàng mi ak yar bi maanaam muy culture euh, ak éducation hmm. muy lañatu saxaafa bi nga xam ne euh, ci fànn googu bokk na ci matt yi ñu denk ci daayira bi xam nga ne liggéey bu rëy rëy la daayira Moukhaddamatoul ma di def ci wàllu xam-xam hmm. ak ci wàllu jàngale hmm. ci wàllu jubbante ak ci wàllu yare formé ay nit ay ay junniy junni yoo xam ne forme nañ leen ci xam-xam yar leen tàggat leen ba di liggéey loo tamit mbooloo mu dul jeex xam nga ne war gis nga ne daayira bi dana dana dana def ay waxtaani diine yoo xam ne fanweer la mm-hmm. gis nga ne ñu ngi jàngale toujours ci ajjuma yi ñu muy mm-hmm. xubbay wolof yi ñu def ak yu demee noonu ni ko doon tamit su màggal jubee mm-hmm. daayira bi moo baaxoo balaa jëm ci benn liggéey dana leeral nit ñi laabiire leen ci loolu mooy mooy suñu solo gaa ñun maanaam udduhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawxisati al azana na nga woote ci yoon wu baax te defee ko ak xeriñ ak waaraate yu rafet te bañ ko defee xët-xët wala nga defee ko ci loo xam ne teguwul ci ay teggin wala wul ci xam-xam loolu moo tax euh, faw su <coughs> màggal jubee danañu danañu ko laytaayal ci am njàngale muy njàngale bu sëriñ bi mm. ci wut ay tomb comme ni ñu koy defee koor yoo xam ne dañ koy laytaayale bis bi yoo xam ne dañuy seet tomb yu yitteel yoo xam ne dafay jàngale njàngaleem sëriñ bi ñu ñu wut ay boroomi xam-xam ñu ñu ñu tàmbali euh, euh, ñu euh, waxtaan yooyu loolu nag ren niñ ko baaxoo defee su dee màggal danañu amal juróom benni waxtaan mm. yoo xam ne dañ koy def mm-hmm. am na ci tamit waxtaan wu mag woo xam ne euh, dañ koy ànd ak comité d'organisation magal lii may wax nii nag daayira bi bi mu ko dalee def ak léegi ëpp na ñaar fukki at daanaka bi mu sosoo ba léegi muy yii moom muy waajtaayu magal ci wàllu xam-xam ak dundal guddi gàmmu mm-hmm. ak dundal ramadan mm-hmm. yooyu moom biñ ko tàmbalee yàgg na boobu commité bi sosoogu naka jekk yàgg nañoo waajal thème boo xam ne danañ ci jàngal nit ñi lu waral màggal gi ak nan lañuy ñuy màggale ak teggini siyaar naka jekk yàgg nañ ko def kon ren ñu ngi waajal laytaay waaj gàttandoo bis bi tomb yi ci ci ci wàllu xam-xam loolu nag ñu ngi koy tàmbali incha allah le neuf safar muy juróom-ñeenti fan ci weeru safar hmm. danañu tànn danañu waxtaane juróom-benn thèmes yi may bëgga tudd bi ci njëkk mooy danañu waxtaane jeexit yi nga xam ne euh, euh, amoon na ci jamono yi nga xam ne sëriñ bi tukki na tukki géej gi maanaam taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ñoo fi nekkoon tukki boobu yan jeexit la def ci ñoom surtout bi mu leen fi bàyyee mm-hmm. waaw luñ luñ nekk woon ak ñu doon dundee hmm. loolu lu ci am solo la lu am solo la hmm. hmm. suñ seex naa ci mu leen moo koy def kon dafa mel ne tukki jéere ji dem gi ak ñëw gi moom ban njeexit la def ci taalibe yi loolu am na solo waaw li ko doon tamit danañu waxtaane tom boo xam ne jaayante ak eh, solo soo xam ne am na ko ci dundu murit muy jaayante xam nga ne mooy mooy mooy liy dugale ci yoonu murit boo ko defut daanaka eh, ci sart yi nga xam ne sëriñ bi wax na ne képp kuy dugg ci yoon wi da ko war a def jaayante te jëlee ko ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sëriñ bi dafa dond yonente bi ci lépp muy almubaya wa ahamiyatuha fi hayatil murid sëriñ Baye Dame Mbaye moom moo koy def sëriñ Baye Dame Mbaye Longhor ñetteelu tom bi mooy dirasa taalilia xawla xasidatu rabbi bi maa yasrahu waaw boobu suñ si suñ Muxtaar moo koy def mi ngi war a am la on safar incha allah euh, loolu tamit lu am solo la ndax dañuy jàngat xasida ak jaalibatul kii xasida ak rabbi bi maes raw hmm. waaye tamit xam nga ne xasida googu dafa am histoire bu mu lëkkalool hmm. muy ci daaru marnaan bi nga xamee ne sëriñ bi jóge na ci géej gi ba ñëw sañ ci kërub daaru marnaan am na xew-xew yu rëy yu fa amoon hmm. yoo xam ne eh, ak mbokk ma nga xam ne moo waraloon xew-xew ya ak yu demee noonu ni mu demee léegi ci askan wi ak yu demee noonu tax na ñuy ñuy déeg tur wi di ko bañ tudd waaye loolu dafa am lu am solo loo xam ne amoon na histoire boobu danañ ko jàngat ba noppi daal di gaaral xasida gi rabbi bi ma yasrahu ak lu waraloon sëriñ bi taalif ko euh, loolu ki koy def euh, wax naa la ko léegi euh, beneen beneen tomb bi muy le douze safar nag nga xam ne mooy conférence bu mag bi bi nga xam ne daayira bi daf koy ànd ak comité bi ànd ko Cheikh Amadou Bassir ak Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma mi président commission culture et communication boobu nag ñu ngi war a waxtaane nag Euh, maanaam e, iqamatu jabriya bi bi nekkoon bi sëriñ bi nekkoon murtani maanaam nekk sëriñ bi ci murtani hmm. ci lañ war a jëlee ay bind ak jeexeet gan la am hmm. loolu xam nga euh, sëriñ bi moom mel na ne murtani dafa demoon ngir jëlee ak payem hmm. loolu tamit mu am fa euh, ay bind yu am solo yuñ ci mën a jànge ci fànn gu nekk kooku si am Murtala Buso nga xam ne kenn ku nekk xam na ne xarañ na ci wàllu googu moo ko war a def mhm. waxtaan yi ma wax nag yëpp vingt et une heures lay doon ci guddi ba des bi bii muy bi am la du safar mhm. boobu moom mi ngi am juróomi waxtu maanaam ginnaaw tàkkusaan dix-sept secteur ñu ngi koy defee fii ci baasu Hizbut Tarqiyyah bi mhm. mboolem euh, képp koo xam ne membre nga ci daayira bi ñu ngi lay invité nga teew ci ak tamit képp koo xam ne ab jullit nga ñu ngi war a waxtaan daal nekkuk sëriñ bi ci Mauritanie ci tënk sëñ Mourtala bu sa imam moo koy def boobu mm-hmm. ci sept lay doon mm-hmm. ñi ngi war def tamit la treize safar al muridiya wa taxadiyatuha daaxiliya sëñ Fallou bu sa asan def yi nga xam ne moo dëkk yoonu murid te nekk ci biir tey am ci yoo xam ne ñu ngi ko ciy dugal wala ñu ko ciy kii te bokku ci mm-hmm. muy jàngat yu am solo yoo xam ne al mudir wal oustaz sëriñ Fallou bu sa asan moo ko war a def mooy di waxtaan wu am solo soo ko defee tamit bi ci mujj di quatorze safar ñu war koo def sëñ bu sa Tamba moo koy def muy alxaybatul bahriya durusun wa xibar tukkib géej gi yan bind yan waaru lañ ca mën a jëlee ak yan e, bind lañ ca mën a jànge hmm. loolu jàpp naa ne sëñ Fallou at mu jot dana seet nag ba xam léeg-léeg mu jël côté muñ gi léeg-léeg mu jël côté tawxiid bi mm-hmm. dañ koy bàyyi moom at bu jot mu tànn benn fànn goo xam ne ci lay ci lay ci lay jëmee jàngat gi loolu mooy juróom benn waxtaan yoo xam ne lañ natu saxaafa bi waajal na ko ngir euh, laytaaye ko waajtaayu màggal bi mm-hmm. incha allah tamit dana am exposition boo xam ne dana ubbi loolu su fekkee ne ñëw nga ci question ci waajtaayu màggal gi mm-hmm. eh, ci biir màggal gi ci la ñuy ci la ñuy doog a ñëw ci liggéeyam ci biir màggal gi sëñ Fallou kon xam naa ne ci tënk ñu delloo la kàddu gi incha allah. jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Abdoul Ahad euh, am na solo lool ci ni ñu xamee ni daayira bi sosoo te sosoo ci ndigal muy ndigalu Sëriñ Tuubaa Cheikh Saalih na yàlla dooli ngërëmam waaye ñëwaat nañu itam ci lëkkale gi nga xam ne daayira bi lëkkaloo na ko ak comité d'organisation ginnaaw bu mu sosoo 2010 mel daayira bi bu fekkente ni bi am na ñaar fukki at nangam comité bi am fukki at ak ñaar lay demee noonu demel na kon ni ko daayira bi mage xaw naa bari te booba léegi nag fu ñu fekkoon dëkk bi mel ni avant daayira bi di sosu ñu ñu fekkoon penc mi mel ni ñu ñu mm. fekkoon jumaa ji nekk ni mm-hmm. mu ne penc mi doomi sëñ Tuubaa yàgg nañ ci jël ay engagement am na jamono yoo xam ne sëñ Abdu Lahat daa daggulu garab yi dafa tere nangam ak nangam bañ demee ba xam ne mënut ñàkk lañ ne wut ne nañ wut ñoo xam ne dañuy féete ci jumaa ji définitivement ngir saytu euh, li sëñ bi bëgg tey sorel li sëñ bi te bañ loolu ñu defe ko ci ak xereñ mooy nit ki man naa am dafa xamul moo tax muy def waaye bu xamee la nga bëgg mu def li kon ñu ne kon nañ ko teg ci xamal nit ki ba noppi ba noppi di ko laabiré nii lu am solo mm-hmm. euh, kon incha allah ñu danañ ci dellusiwaat xam nañ bànqaas yi nga xam ne ñoo seq eh, daayira xet na waaye seen liggéey ci màggal gi dina gën a métti dina gën a bari ndax yeneen waroon ci màggal gi lépp dañ koy warte warlu ba noppi liñ leen boole ak comité d'organisation bi di beneen pàcc bopp boo xam ne danañ ko ci saytu sogo nag liggéenti seen mbiri kër yi bopp kon day mel ne kenn ku ci nekk ñetti tomb yu dis gën tege na ci sa bopp yoo xam ne mënoo koo ñàkk jëfe ñu ngi toog ak sëñ Maxtaar Kan sëñ Jiri ak agsi na léegi eh, sëñ Jiri bu sa mi ngi nii jëm ci wàllu communication seen Maxtaar dañuy njëkkante ak yow rek comme yow yaa yor wàllu organisation nit ñi dañuy màggal si te jumaa ji daa am lu mu bindoo penc mi am lu mu bindoo armeel yi it am lu mu bindoo ndax am lu mën a xew am na ñoo xam ne ci biir màggal gi lañuy indi seeni yëf la indi seeni i seen ngeen war koo régler loolu war a organiser màggal bi ci ñi nga xamante ne bi ñu ngi ci penc mi di jaay ak ñeneen ñi def ñeneen war a organiser waaye tam ñi nga xam ne ñu ngi ziar ci biir ci ci biir jumaa kon comité d' organisation bi féete foofu ana wan waajtaay ak ban message ngay euh, génne jëme ci ñi nga xam ne ñooy gan ñi war a ñëw bismillahi rahmaani rahim barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu salaam ñu ngi nuyu tey ziar jotaay bi di njëkk suñuy kàddu ci sant borom bi subhaanahu wa taala di ko ñaan tamit may ñu xéewal dafa ñu ak mucc te guddal fanu suñu yaakaar ji suñu kanam amiin ndamal murum yëpp bu jeex xaadim rasul amiin bismillah na kàddu yi euh, leer na ci njëlbeen gi may faral wax ne lii fii sëriñ Abdou Lahad Bousso wax muy liggéeyu daayira bi jàpp naa ñett rek la ci mos taxaw suñu Seex Saaliwu teg ci laaj ndigal yi des yëpp sëriñ moo koy tànn boppam wax suñu ko te mooy bis njëkk bi njëkkee sos daayira bi ñaar bi tam mooy ci koor gi ak ci xudda wara si hmm. waaye yi des yëpp sëriñ bi mooy xool ci gis-gisam walla ci ni ko ñuy wax ci ay bëgg-bëggam mu joxe ci ndigal mi ci gën mooy ñaar bokk na ci muy li indi ñuy sensibiliser ci jumaa ji te loolu nekk histoire boo xam ne tamit bu baax ci mbooloo mi la ndaxte ci ak koor ñu koy waaj seen tub njëkk la fi benn waay jaar ci jumaa ji waaye fekk na jumaa ji xawal a dem ci ay manque pay lakk sëñ boobu dugg ko sëñ Saliou xam naa jàmmal ko sëñ bi bi mu dëppaatee gis ñuy jéem a ñun soppi yi lakkoon mu delluwaat sëñ bi na ko la ma gisoon de wax la ko day daa mel nañ gone yi ci baa ñu ngi koy na ko jàpp naa ne ñu xam ne nii gis nañ ko ko jumaa ji buñ ci xaar kenn loolu mooy laay béy ci wax ji waajtaayu màggal gi nag ni ko waxee euh, day ñaari côté sëriñ bi wax na ci côté ruux bi te mooy waajtaay yu jëm ci wàllu njàngale meeg yar beeg jubbante beeg wane li bëgg ci jumaa ji te dëppoo xam-xam dëppoo ak aadaat masjid bokk ay surut yoo xam ne nii sart yoo xam ne nii képp ku nuy ak jumaa war nga koo moom laa siman joo joo xam ne nag dafay fekk nag koo xam ne nii mooy siyaaka alaxam sëñ Cheikhoul Khadim xam ne am na teggin yoo xam ne ñoo war ak moom am teggin juma moo tax ñun tamit commission bi féete dafa waaj ay waajtaayam def ko ñetti xaaj xaaj njëkk mooy waajtaayu njëkk màggal bi topp mooy waajtaayu bi nekk ci biir màggal ak nag bu ñu paree ci màggal ki waajal bi njëkk ci màggal mooy ñaari xaaj la benn xaaj bi formation la benn xaaj bu liggéey la te mooy ñu commencé talaata incha allah. Mhm. ñëw ci jumaa ji lépp loo xam ne nii gis nañ ko fi tam laaj ay waajtaay ci ab piil bu am ayib wala ventilo bu tàkk tut wala book loo xam ne nii toppale ko dana gën a jagal mbir mi tàppi bi tilim ba poussière yooyu yëpp ñu taxaw ci jumaa ji ba sensé lépp fi mel noonu ci ay jumtukaay wécc ko yu baax yu mel ni fi nekkoon te loolu mooy jox taar yokk taaru jumaa ji ndax jumaa may fu war guddi màggal ak màggal gépp daa war di nekk di leer suba ak ngoon kon loolu da koy jiitu loolu day ànd ak nag ay waajtaay yoo xam ne ni ñu koy def dañ ci tàggat ndax te xam nga courant nga nekk am na war a mel ñi fopp ñi raxas loolu lépp ñu préparé ko waajal leen ba bu ñëwee jumaa ji wàccu sart yi def liggéey na mate te loolu nag di jur di jur lu baree bari ci ay finance ndaxte euh, dafa laaj yàgg jumaa ji une semaine te dafa laaj ab liggéey baree bari loo xam ne si njëriñ yooyu dañ ci gën a sara ndaxte moo gën a méngoo ci social ci loolu bu ko defee ñu waajal nag nit ñi ñuy àndal ci liggéey bi avant màggal ndaxte suñu Abdoulaye wax na léegi nii jumaa am na ay teggin am na ay chart kon nag ki ngay aaye war naa xam ni aaye fu mu ko teg mm-hmm. ak lu tax mu koy aaye ndax bu bu la nit waxee lu tax nga def lii nga mën koo layal ci diine ak i teggin. Mhm. tax na nag ñu waajal ay ay ñi fekk leen fan nekk daayira bi mën leen defal ay formation ci wàllu kaaraange ba ñu dëgër xam li war def ci jumaa ci ci wàllu kaar aar ko ci lépp waajal leen ci wàllu sécurité ba ku gaar ku dara gaar ci jumaa ji mooy ku daanu wala ku am jafe-jafe ci wér yaram mën ay def liggéeyu njëkk yooyu mu teel. waajal ci wàllu set ba ku ñëw jumaa ji xam ne nii nga war a mel boo ñëwee ci wàllu cet jumaa gi nga mën cee participer bala ngaa génn jumaa ji. <laughs> loolu mooy waajtaayu njëkk wi dana commencé talaata incha allah suba ci samedi dimanche dana leen Ndakaaru def fa ay formation ndax daay dama am ay série yu génn biir Touba te bëgg na balaa màggal. Mm-hmm. ñëpp xam ne ku ñu ba fu nekkee di di nekk ci buntu. wala nga teg sa bàtt nekk di def sàppe nga war a xam ni ngay def ak li ngay bàyyi xam sa limite ak fi nga war a loolu mooy wàccal njëkk wi bii màggal gi ñu ànd ñu ànd ak suñu mboolem daay yi muy fukki daan ak ñett yi ànd ci xidma ñu ñëw séddal leen ci ay parti yu wuute yóbbu ñii ci wàllu set gi yóbbu ñii ci wàllu sécurité yóbbu ñii ci wàllu vigilance bi yóbbu nii ci wàllu sensibilisation bi yóbbu ñii tamit ci wàllu rang yi. Mm-hmm. ngir nit ñi kuy dugg si ne bu ne sa tànk ci buntu jumaa ji mën a xool ba xam wàccoo nga ak charte yi bala ngaa dugg ci biir. Mm-hmm. ànd rek di contrôler wàll rek borom caméra yeeg borom appareil yi nga xam ne ñoo ñooy dugg ci jumaa ji ñëpp xam ne dinañ jëmbal ba lépp nosu mm. jumaa tamit chaque quatre heures temps cinq heures temps ñu def benn. wër xool liggéey boobu ja ànd ko ay ay ay liggéey yoo xam ne nii lu xew fu ne balaa am deux minutes jëriñ ña def côté boobu dana ko mën a xam jëm kaa taxaw bu të ñu jëm ko yëgal xam ne problème yi daan gaar ci bunt yi. Mhm. dana wàññeeku baax a baax. Mhm. loolu ñu ngi ciy liggéey ànd commission culturelle def dana xamal ni li muy tere ndax xam nga tere tamit dafa xaw a xaw a xaw a garaaw. Mhm. ajjëriñ ko mu alaat fatwa ajjëriñ ko mu alaat naar. nit ki mën ngaa digle. digle boo xam ne nii yow mi ko digle sax da ngaa lu xaw a kii mais ni ñu koy wax misaal ci suuf rek nit ñi jumaa gi mbaxana te loolu di sunna nga bëgg koo sumuloo mbaxanaam xam ne ñu suñu aada suñu tegg sax may ñu ñu jumaa sol mbaxana waaye ko def tamit xamul xamoo kéem nga noo ko ma laabiree bam def li nga bëgg a def te du juru ab wala ak wala ni sol cër goo xam ne di keroog dëpp jumaa ji nga mën wax ak moom ci ab yar teggin ba loolu am ànd ak nag ndigal yi suñ joxoon pénc mi nag ñu koy sàmmaale <laughs> ba kenn du fi lal di jaay kenn fit def ay diwaan ñi am ay gàllankoor yaram mën a jéggi paa bu njëkk bi mooy bunt jumaa ji dem ci buntu ba def seen liggéey te moytandiku bu baax nag loolu ñu ko duñ ko sàmmoon wi manqué mm-hmm. loolu mooy biir jumaa ji mooy màggal gi ñu nekk ci trois jours trois jours avant màggal quatre jours après màggal gën ngaa néew. su ma ànd ak nag jumaa gi set chaque jour nag su màggal weesoo tamit te loolu tamit day day laalaale Mbackeyan ah, laalaale morgue bi. ba ñi fi ñëw sànkar yi di teew ci waxtu bi lay soxlaa. dëppoo bi am tamit diggante santé ak euh, liy gaar ci tëli bi lay lekk. cas urgent yi. léeg nga xam ne yàlla na yàlla. musal ba mu bañ a am sax kii ci màgg gi. Hmm? xam ne ab kaa xaw a critique. Hmm. ci ku gën a àdduna xaw a critique. Hmm. ñun tamit ñu taxaw ba kooka bu ñëwee rek léegi aji formaté yi ñu gaaw def ko. man koo denc. ci denc lu anam bu jaari yoon moo tax dañuy jéem a sensibiliser ñi fa nekk ba ñoom tamit heure bi xëy du sensé wu wàcc bu sensé tamit tey nag ñu ànd ak contrôler ndax zoo dafay am ay ziar. baax a baax. ñu fa duggee fa génne. loolu mooy bi màgg gi bu màggal jee tamit ñu ñëwaat jumaa ji nag ndax tasal màggal moo gën a métti màggal. ndax ñi doon jaay ñëpp ñu jege si jumaa ji. ñu ñëwaat jumaa ji nag jéemal toppal wan lépp loo xam ne nii ay tere la woon nekk jumaa ji jëm ko solal nit ñi ban sori loolu lépp jumaa ji def ba meloon dum jaay dum diiwaankat du koy màjjal ñëpp delluwaat seen seeni seen barab ñu xam ne loolu mooy liggéeyu après màggal incha allah jàpp naa loolu mooy. waajtaay wàcc màggal gi. mu des nag ki ñëw nag teg saagam ñu jumaa ji kooku yi mu ko li mu war a bàyyi xel bi ci njëkk mooy jumaa ji dafa am ay parti daa am boo xam ne nii julli rek ak jàng alxu julli rek ak jàng sikar teewal sa borom rek moo fa gën mm-hmm. mooy fi tuddee jullikaay bi am foo xam nii ab barab la da nga fa war a dugg di ziar foofu mu nekk ab barab am lu lu lu fa sare am maye. am lu fay dugge am lu fay génne. am ab yokk ay yokk yu bare bari yu jumaa ji ak ay ay ëtt yu yaa. yooyu yëpp nag ni ngi fa nekk fukki nag am lu fa jaar. li ci njëkk mooy ko yow ñu jumaa ji kon war ngaa bàyyi xel ne boo dugg jumaa ji boo nee teg sama mu buntu jumaa ji bu dee góor. war naa col col gu dëppook charia gu dëppook charia la gën nag mu nekk col gu murit murite murit ni ni soñsee ma mu noonu bu dee soxna mu col col gu dëppook colub jigéen bañ koo def dogub góor sàng ay awraam baña a yaraax bañ a xat ci moom dem ca sàppa si jigéen sa mu yaramam laj ànd sàpp sa booy dox wuti barab ba moo xam muy góomu jigéen nga moytana ko baax a baax yuuxaloo bi ak daw bi surtout daw bi nag ndaxte ñoo ngi jëmee nawet karo yi day xawaat bu tooyee mën naa jur ay daanu daanu kon ñëpp ànd ak dal mm-hmm. bàyyi yuuxu bi ak kañu beeg ndax barab jumaa ji dafa am ay charte yu ko yu ko isam jumaa mënoo faa nekk doot da tudd yàlla sax danaan la def ko ndànk kon keneen loo tuddaat leneen rek la gën nga def ko ndànk moo gën boo duggee ci jumaa ji li ngay romb ci ay bant ci ay ay bunt wala ay keno wala ay ay ay ay ay ndaa wala man noonu yow bu fekk loo bëgg romb koo laal man mën naa mën naa ju tamit mën naa ju tamit leneen loo xam ne nii day day day day yàggal sab dox. Mhm. te loolu tamit gënu. Mhm. nga bàyyi ba ak ca barab ba. Mhm. nga dugg bu dee jigéen nga dugg foofu tamit toogaay dafa jafe dafay xat. bu dugg nga gaaw sa ñaan suñ si la ñëw suñ tubaab dafa tànn nu muy ñaan nu mu ko ñaanal da ko tànn foofu. war nga booy dugg si bala ngaa ñu nga xam nu mu ko ñaanale. ak yow sax nga préparé sa bopp daal. ba ñëw ba ci ba ci béréb bi. yaakaar fay fa nga toog ñu bàyyi la sago nga toog toog toom neex bala nga fa jullee yooyu yëpp da xam ne koy bàyyi booy dugg si bàyyi ko ginnaaw bu dee nag da ngaa ziyaara pare wala si am na loo xamante ni da nga koo motu baax a baax te dafa ba xew léegi muy nga bëgg looromu taxaw foto fa bëgg koo def TikTok bëgg koo def ci WhatsApp bi loolu tam nga xam ne du ay teggin mm-hmm. si nga se xam ne leer jumaa ba fi nekkee daa am yoo war a loo war a xëntawoo mu jiitu ci yow mhm. moo gën nga nekk loo xam ne nii mhm. amul benn solo mhm. te day wàññi yoon siyaar te loolu ren jii dañoo jël ay montage ci yokk yi ak ci kuur jumaa ji ñoo xam ne nii dañ leen koy aayaloo léeg-léeg nga gis ñi ne bëgg falaw nag kii sama yaay la wala sama rakk la waaye ñun moom danoo maasale ne li bëgg mooy photo ku ko def koo xam ne sa xel nañ ci def raw mu nekk ay góor kese hmm. wala ay jigéen kese hmm. waaye nit ñi nii def nag moom naq naa saafara waaye ñu ngi ci jëm suñu ko dakkata nag mooy bàyyi ba génn jumaa ji seen kër tëj ci kaw musique wala yenn loolu nag moom ñi koy def nañ xam ne tubaab moom jumaa ji moom kenn mu koo sikk hmm. sab dong la nga def ndax boo ko defee dañ keen ci weer dong kon fu ñu jaar bàyyi xel loolu mën ko matali ko lañ topp mooy xeeti majjaal yi gars yi ñu xewal léegi jumaa ji hmm. suñu saali moo aaye woon te loolu sariya moo ko aaye jumaa ji majjaal hmm. nit ñi ne dañoo am benn phénomène bees buñ buñ xewal léegi mooy euh, sàpp si léegi xam nga sàpp day ñaari yoon hmm. yow fekkee da nga suñu fàll sax dafa jënd ab mbuus tàngalam ànd ak mataakanam sàpp si góor si wala sàpp si jigéen si ma jox la doom tàng juróom ñi ñi ànd ak yow ñépp joxe juróom juróom wala fu ñaar fu ñaar fu loolu ay lu xew lu gars yi xewal la mhm. loolu la xam na ne ñu koy def xam nañ ko baax a baax mhm. te lu tere jumaa ji kenn du fi majjaal mhm. kenn du fi jaay kenn du fi wéccee ko ci ko manqué kon ñu bàyyi xel ne loolu tamit lu am solo la li topp mooy toogaay yi ci biir jumaa ji ñu dëpp la ko charian xam ne nit ki mënut a ànd ak ak ay góor ki jigéen ci yokk bi wala ci ji ñu leen tàggaloon cent pour cent déedéet waaye même jéem bu ñu toog ñu soree toogaay jigéen fee góor fee may jege ndaxte image tamit defet ci mbooloo ñu toog jaxasoo am góor ak jigéen la topp mooy ñu ko yi ñuy sànni jumaa ji taq-taqee ko sa mbuus wala sa bidon nga jëm koo téye ba génn jumaa ji def ci poubelle yi moo gën loo mu sànni ko te loolu day tax jumaa ji gën a am ay taq-taq te loolu mën naa ñàkk ci ñun ñëpp ñu ko sotti wala boog ñi nga xam ne dañuy ñëw ci maa tamit di yor ay ngànnaay du mën a moo xam muy ak ku moo xam muy jaas moo xam ne mais loolu yoo xam ne tamit bokkul ci melokaanu jumaa jumaa boo fi nekkee di ñëw da ngaa war a su mel melokaan xam ne nii doo fi jëlee doo fi lore. Mhm. doo fi la roon te loolu nag xewal la. Mhm. surtout nag loolu li tàkk. Mhm. xam ne bu tàkkee mën naa dawloo mbooloo. ñu njëkkante ni bunt yi di gaañu. loolu ñu moytu ko baax a baax ci biir jumaa ji. lal am njaay ci penc mi. di jaay tamit. da nga fi tere àndandoo sol sa yére yu nuroo wala yor sam jaay mu am ndox am ndox mooy mooy jaay wala bañ boo jaay mel noonu mu nekk mbooloo ngeen koy publicité ba koo xaw a wuute ak ndigal yi mooy képp ku yor jëm si jumaa ji soxla image wala wala ab plateau loolu mën di xel mu ne boo duggee jumaa ji bala ngaa si tànk rek tëb jumaa ji li tëkk mooy nga laajte ana fu waa xidma nekk soo àggee wax li nga bëgg a def noo koy defe koo koy àndal ñu xool bu fekkee lu mënu la ndax daal am lu ñu ci dawaale mooy am maxtaar kan ñu xam ko ci beneen animat beneen leneen bi animé mhm. bëgg ñëw ànd ak seen jiir ñang ci waxtaanu diine mhm. loolu furu bi ñu bëgg ñëw it plateau yooyu amee wala interview yi amee ñu xam ñu xam ne danañ ko man ñu topp leen bam pare ñu xool ko. kon diggante boobu day mel ne kuñ xam ci beneen. dañ koy mooy baax a baax. macha allah li yor ay drone. doon bàyyi xel baax a baax. drone tamit bala nga koy jumaa ji da am autorisation da ngay tàggoo ba nga xam ne yaa ngi koy lancé ndaxte jumaa ji ay kër da koo wër te drone li muy jël dafa dafa mën naa sori te mën naa jël lu rëy rëy. Hmm. moo tax ñu bëgg nit ñi bàyyi ko xel baax a baax a baax. mooy jeex la mooy ñi nga xamante ne day andi ay xale di ziare si ndaxte xale yi réer ci wetu ndax day xaw a bari lool lool. Mhm. te nit ñi dañuy bi ñu day takk seen takkan takkan seen i seen rek bu koy rëccee fekk ñu daw day day réer. Mhm. te fii day bari xale yu yu fii yoo xam ne fi ñëw di réer loolu tamit bàyyi ko ñi nga xam ne dañuy dañuy alal jàmbur tamit ñu xam ne jumaa ji dañ ko sécuriser ci ñu ñuy liggéey nga leen séen. nga xam ne kii daa monté fii mu ngi xool am ñoo xam ne gisoo leen te ñu ay nit la ñu ngi ànd ci biir yow hmm. am foo xam ne nag du nit moom machine la bu teg fee loo fi def mu néew ko bari da lay gis mais caméra surveillance bi yëpp ci wàññi hmm. te jàpp ci mel noonu mën na laa julal ay fitna yu bëree kon ñu ngi ñaan ñi magas ñëpp ñëw ànd ak weer ànd ak teggin ànd ak dal ndax wuy si woote Sëñ Tuubaa kat bu bëgg jariñu da nga koy dëppale ak sunna Sëñ Tuubaa léppam sunna la kon nañ ñëpp góorgóorlu di ci taxawlu ba ci kanam. macha allah jërëjëf euh, sëñ Maxtaar leeraat na ci wàllu organisation bi rawatina nag biir jumaa ji ak biti jumaa ji waaye fi nga daaneele mat naa bàyyiwaat xel bu baax mooy euh, ñuy màggal si te léeg-léeg ci biir ziar yi pas-pas bi ñuy àndal ci sëriñ bi yàkkamtee ak ci sëriñ Tuubaa wala lañ fas seen xol tax duutuñu bàyyi wàlla xel li ñu yor ba benn waaye jaar fa rek jël ko loolu wax nga ci ne am na ñoo xam ne dañuy taxaw di di surveiller loolu am na ci ñoo xam ne doo leen gis ndax bu ñu soltani waaye ñi ci gën a garaaw mooy borom bët yi muy muy euh, appareil surveillance yi kon loolu da nga ci baaxaale kun jël sa dara ci jumaa ji nga mën a laajte xitma na ko man kat damaa duggoon ci jumaa ji ñu jël sama nangam bu ñu xamee heure ba bu ñu aree ak wat ga nga féete bu ñu xoolee bët yee yaakaar naa ne dana mën a génn ci loolu kon ñi jël xam ne jumaa ji moom du dalu ngute lis ko faral di waxee loo fi dee nag mën naa daal di feeñ waaye day mel wax lépp nag dégg naa sëñ Abdou Lahad yi mu taxawal dana ñëwaat sax ci ni ñuy ziare sëñ bu fekkee ne dañoo mool ay xasida yu ñu fa teg ku ko xamut wala ku bëgg laa biire bi ngay ziare sëñ Tuubaa mu nangu ko sëñ Tuubaa moo ne day leen na ziare lii loolu ba xam ay këyit lañ ko defar la ñu demee noonu dinañ ci ñëw waaye damaa mel ne lii ñu def lépp nag ci xaalis lay lay lay lay xaalisu ko man te nekkul budget bu fi ne te ala kulli xaalin faaw mu am yaakaar naa ne kuy jum jumaa ji li ngay bëgg a njëkk a ñaan mooy yàlla naa fekk lamp yëpp tàkk ndax guddi gi loolu la ñuy téw lamp boo seen mu rek daanaka jar na vingt mille pile bu ne jar na dix mille ba ba ci jar na euh, six mille wala sept mille yàlla ci yoo xam ne dem na ba àgg soixante mille te lamp pile yooyu yëpp bu magal gi jub bu ci lakk dañ koy changé bu ci tilim dañ koy nettoyé te kenn du ko nettoyé ndoxum kese loolu xaalis lay laaj kon yaakaar Euh, xitma budget spécial lañ war a am boo xam ni ku bëgg juma noo bëgg jumaa ji mel ko daal participer ah. ñu defal la loola ci jumaa ji meloon loolu nag daa mel ne seen jiir nañ moo yor ci wàllu social social nag day bari gaa yoo xam ne buñ ko tuddee dañuy yaakaar ne xaalis fa nekk ñu di ko séddale waaye fan ngeen war a jëlee xaalis ba noppi soo ko social loolu daal bëggoon naa ñu ñëw ci waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa si Amadou Fadal ñu ngi lay bu baax a baax te di delloom nuyoo tey nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi moo xam ci MKTV la moo xam ci surtout Muqaddamatul Xidma moo xam ci Lamp Fall ak ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan ci Facebook bi wala ci yeneen yi nga xam ne ñu ngi ñu ci gis di yëkkati am nuyoo rek di ko tàmbalee ci wajxal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida di ñaan ci baaxub suñu borom ak barke barab bii ñu toog ak barke boroom barab bi sunu borom dimbale ñi kàddu yu ñuy yëkkati mu doon kàddu yoo xamante ni yu ñuy jariñoo lay doon te bañ a doon kàddu yoo xam des nañu ci xeeb ndax lii ñuy def dañ ko tëli lool mooy wax ki waaye nag day kàddu yu ndigal lépp loo xam ne dafa jóg jëm ci sëriñ bi buñ ñu ci sante man ak man la war mooy jéem ñuy nuyoo nag yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñ Afia ak sëriñ Abdoulahat ak mboolem jëwriñ daayira bi di wax ci turu commission sociale bi nga xam ne sëriñ Abdoulahat bu sama asta moo ko jite ak ñi ko seqal ñëpp di jéggalu nag ci tarde bi ndax dañoo nekkoon ci aw yoon bay doog agsi nii mm-hmm. kàddu yi ñuy yëkkati nag muy kàddu tàmbalee ko ci laaj bii nga laaj muy laaj bu am solo ndax léegi waxtu woo déggee fuñ na social daanaka baat bi am na loo ko ñu bari di déggee mën na ko firi mën nañ ko fireen tamit nu gën a yaatu ci noonu waaye bu dee social bii ñuy wax ci muxaddamatul xidma dafa lëngale mën naa ne baat yooyu yëpp mm-hmm. mooy boo xamante ni dana yëngu ci dimbale moo xam yëkkati jox nit ki waaye dana yëkkati tamit dimbale nit ki tamit ci koo xam ni dafa mën a di ñu taxaw ko ba mu mën a jug taxaw dana dimbale nit ki nga xam ne tamit aaji am na xaajo te néew ci doole kon jàpp naa ne socialu fii mën naa gën a yaatu loolu nga wax nag moo ci nekk ndax fii moom mën naa ne waxoon naa la ko fii daaw wala daaw jéeg ñun suñ lépp dafa tàmbalee ci sëriñ bi yam ci sëriñ bi ci baaxul sëriñ bi rek la ñuy dund moo tax daanaka mën naa ne fii ñuy wax ni du mën a yor bu ah sax fu la du mën a yoruñu dara waaye mën naa ne buñ fi nekkee néew na lool waaye am nañ rafet njort gu mel ne sëñ Modou waxoon rek li ma sëriñ bi wax lim ma waxagut moo kaasu kafe bii nga xel jox ma ko léegi mu wóor ma ne kafe ne loolu laa gën li ma sëñ bi wax te gisagu ko laa gën a gëm ci lii ma yor na kaasu kafe Allahu mën naa ne ñun dog it foofu la ñuy àgg ci moom ndax waxtu ak bis bu ne ak heure bu ne dana koy wan ci sunu bopp suñu jëmm yu xeebu yi ba tax na ñun su fekkee ne am nañu dara lu ñuy wax wala lu ñuy yëkkati wala lu ñuy jéem jéeme ko ci sëriñ bi loolu moom bokk ci mooy jàmbat ndax moom da ko jaayante woon kon noonu buñ ko mënul tamit àgg fa mu àggoon it war nañu xap xappal suñuy bët ba fas yéene moom duñ jéem a jaar ci bunt booba waaye lépp lu jëm ci moom it nag moom dañuy jàpp na moom farata la ci ñun moom ñu jàpp na lu war a nekk la bu ñu yorek bu ñu yorut te sikkiwut na noonu lay demee mm-hmm. ndax ay at jaar na fi yoo xam ne noonu daan demee te day day baax ba àgg ci lool moo tax dërëm bi nekk fee mu ñàkk fee nekk noonu lay demee waaye nag nañu xam ne dërëm boobu dañu koy tàmbalee ci sunu bopp mooy membre yi daayira Muxaddamatul Xidma mm-hmm. ndax kat bay ci sa wewu mm-hmm. te ku ci nekk bi ngay dugg ci daayira bi sa coobaree bopp moo la ci dugaloon wala sa waajur gis na lu baax la hmm. mu wàmmat la dugale ca ngir bëgg nga am fooy sàkko lu baax wala yow nga demal sa bopp ba xàmmeem ñi ci nekk ak li ñuy def ci kii bi nga yëkkat sa haddiyee di ko ci def oh. loolu moom foofu tàmbalee moom ndax damay wax ne ñun bala ñuy tàllal kenn loxo wala kenn di ñu indil te tàllalu lañ ko loxo sax ñun ñoo war a njëkk a xam suñu bopp li ñu war ñu di ko def dëgg la te lool it moom foofu la ñuy tàmbalee suñu soññee ñun ci suñu bopp boo hmm. mboolem koo xam ne bindu nga te yor kàttu Muxaddamatul Xidma na nga xam ne hmm. lii ñu jub moom. Mm-hmm. mën naa ne mooy ponk bi nga njëkk ci daayira mu xaddamatul xidma mm-hmm. ku war a joxe saat yi def ko ci ndax boo xoolee suñ siin yëpp buñ koy wax mooy taxawu jumaa ji setal ko soppi lu fi yàqu làmp ventilateur ak leneen lu dul loolu. Mm-hmm. loolu nag li nga wax léegi moo koy wax ndax jamono ko laaj jamono moom lépp xaalis la. kon loolu ñun ci suñu bopp ñu ci war a jiitu. ndax yéen topp bi ngeen sa soo xam ne moom màggal Tuubaa la gën a néew ko def moom. waaw ku kat maam ñaari junni daal mooy li nga xam ne moom mënut a ñàkk ci màggal gi ci membre bu nekk su ko defee nag loo mën a teg loo ci mën a teg nag kon kon a xam kon kon fii ñu nii mm-hmm. murit bu ñuy dab di ñu dégg mm-hmm. nga xam ne sa sa sa ñaari junni mm-hmm. bu jaaree ci numéro wéef bi gën a tàbbi incha allah muy 77 686. 13 13 13 77 686 13 13 kon fii ne murit boo xam ne yaa ngi dégg hmm. te sa compte am 10 000 francs hmm. xamal ne mooy sa participation ci gimaayu Touba magalu Touba macha allah mën naa <laughs> gën a yaatu tamit hmm. keneen koo ci xam mu ci sa bunt boo ko fa jaaralee doon agsi jeex na lay firndee loolu it képp koo ci jox lu mel noonu am na firnde ju jógewaat fii dellu siwaat te yow mu wane na la nga joxoon agsi na loolu nag defuñu ko ngir manque di confiance wala yu mel noonu waaye dañoo toll ci jamono yoo xam ne suñu Cheikh Mbacke waxoon rek mm-hmm. nañuy laaj nit ñi lu ñu am te di ko def fu ñu xam mm-hmm. bu ñu joxee li ñu am mm-hmm. fañ koy dugal bu ñu noppee dees na leen ko wax te dana dana wér lool ku xool ku ñëwut boo seetaanee ci seetaanukaay yi da gis na la nga joxe dugal nañ fañ ko war a dugal dugalukaay nag ñett am na ci danañ ci jënd matériel bi jëm ci lii ñu wax léegi nga xam ne mooy li ñu tax a jug ñoom seetal gi ak sellal gi mm. ak lii nga wax léegi nag ku sañoon boo duggee jumaa yi doo gis benn làmp bu taq wala benn lampe boo xam dafa lakk mm. wala ventilateur wala mukket wala nangam mm. wala muy am xet gu neex bu muy def su loolee jàllee tamit dañu fee am ay mag am fi aw nit wu fi nekk boo xam ne mat naa ne lim bu baree bari la boo xam ne dañu fiy xëy di fi gont si mën naa ne juróomi ñetti fani màggal gi mm-hmm. am na ci ñoo xam duñ dem seen kër jëwri ni boo génnee ci buntu soow bi dañu laal foofu am mukket foofu mooy doon seen bureau foofu la ñuy toog buy taw ñu dugg ci biir bu géexee ñu génnaat ci biti waaye amuñu droit i kër déedéet seen lépp fa la leen di fekk ci benn hmm. bu kii jotee ñu jógati nekkati ca waaye nag ne liggéeyal sëñ Tuubaa du ma kenn hmm. ndax lay fayee laa xam hmm. kon daanaka man nañ ñu ñun moom duñ ci yërëm kenn dëgg la loolu mën nañ ne dañ koy jàppe ci farata yi <laughs> boobu mooy ñaareel bi ñooñu dafa am lu war ci ñoom <laughs> ndax nit ki kat bu nekkee wuutu la ci li nga xam ne yow la war <laughs> war nga ko wuutu ci li ko war ñooñu dana am loo xam ne des nañ koy wut di ko dimbalante ak ñoom ngir ñu bàyyi ko ca daara ya ngir mbokki taalibe yee ñëw ñoom it ngir féete ak ñoom bu loolu jàllee tamit am nañ fi barab boo xam ne dañ fi barabu fajukaay la boo xam dafa nekk ci biir jumaa ji te loolu muy farata joo xam ni ñaari at yi lay doog a taxaw waaye daa doon far lu mënutoon a ñàkk ndax daa nañ fi toog léeg-léeg yàlla dimbale def am kaa yu fi am yoo xam ni ngir ñu génne leen jumaa ji yóbbu leen sowee ji leen rek jafe-jafe lay doon mm. ndax ku ne xam ne ne jumaa ji mooy sémbulu murid yi ku ne cëpp mm. tubaale bi njëkk def mooy mooy siyaare ji mm. te loolu li koy firndeel boo ñëwee ba gis rang yi ni mu demee sa yaram mi day daw am na ci rang yoo xam ne day wër ndomb jumaa ji da koy wër ndomb ci côté yëpp maanaam yi jëm ci barab bi moom day mujj day mel ne jaari ñàngoor doo xam ne bii moo jëm barab barab bu ki doo ko xam loolu nag moom maanaam lu doy waar kon ku mel noonu nag fu lu bu ñu mel noonu buñ jógee jëm ci barab bu mel nii jaadu nañu def foo xam ni ñaanaluñ kenn li ñu ñaan mooy ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm waaye nag jamono xam nañ Tuubaa ni mu tànge ak léeg-léeg yëf yi ni muy demee ak tamit jamono ji wérit yi ni mu baree mm-hmm. moo tax ñu fàggu fi barab boo xamante ni mm-hmm. dañu fay Euh, ku am yàlla def bopp bi metti wala yaram wu tàng wala nangam ñu yóbbu la fa. Mm. wax nag am nañ mbokki taalibe yoo xamante ni ñoom lañ ci jàppante nga xam ne waxtu ne médecin dana fa nekk. Mm. ak infirmier ak sage-femme. Mm. ñoo xam ne dañuy jàppalante ci ñoom. buñ nee ba loola kii dañu am ambulance yu fi nekk jël leen transfert leen yóbbu leen ci hôpital yi. macha allah foofu dafa am lu fa war. ndax la fay nekk lépp dañ koy jënd. garab yëpp lépp dañ koy jënd. maanaam ku fa xas dugg waroo jënd dara yow waroo jënd dara macha allah ginnaaw nag jumaa jee la yor jumaa ji nag la ko fay def lenn li ci ñu lii ñu wax lay doon li ci des nag jaayantekat yi nga xam ne gëm nañ ne ñoom ñoom ñoo bokk liggéey bii nga xam ne ñoom it ku ci ne day bëgg bi ñoo moo xam groupement pharmacien yi la moo xam ñu mel ne waa assistance médicale yi ñu mel ne médecin yi am nañ ab daayira ak ñu mel ne ñi nga xam ne ñoo jiite wàllum faj mi ne rek ci région bi ak mbokk yi ci des xam ne dawaa ir yi ci des yi nga xam ne dañuy jàppalante yi sëñ Maxtaar dañ tudd fukk ñett mat nañu ko fukk ak ñeent hmm. ñëw di jàppalante mu xam ma xadama dal xit bi Louga ak hmm. Touba ak Kaolack ak euh, Ngoy ak hmm. yëpp ku ci ne la man mu tuut mu néew nga indi ko ñu boole loola def ci ñetti pàcc yi ma la wax kon loola mën naa ne daal laaj bi lay laay ba a jéggi fi ñu jëlee li ñu koy def moom te sëñ ba lañ koy jële delloo ko ci sëñ bi macha allah <laughs> kon nag xaaral ñu koy bañ dellusiwaat. jërëjëf jërëjëf eh, sëñ Djili. Eh, eh, waaw ñu fàttaliwaat numéro bi. 77 686 13 13. wax lii ñuy wax lépp xaalis sa koy def. te xaalis bi nekk nekkagu fi. waaye waat nañu ne danañ ko def moom. loo xam ne budget boobu nag lu gàtt gàtt mu romb 60 millions. ci lépp dañ la koy delloo ci jumaa ji ak li aju ci jumaa ji. kuy magal si jumaa ji nga war a jëm si. boo seenee pile bu lakk yaa ko war a defar bu dee ventilateur yaa ko war a defar bu dee gan gu a dalal. bu dee ko wéri di yaa ko war a faj bu dee ko xiif yaa ko war a jox mu lekk bu dee tappi bu tilim yaa ko bale bale bu dee parfum bu war a def ci barabu sëñ bi yaa ko ci war a def kon yow mi ci bëgg a def sa dara 77 la 686 13 13 damaa yaakaaroon ne sax guddi gi moom dañoo waroon ne euh, plafonné na ndax numéro bii am na Wave am na Orange Money mm. te murid yi 10 000 francs yomb na 10 000 francs ñu defal wala nga amaale ko ci compte waaye nag yàlla bu lay fay moom du ko jaarale sëñ Modou sëñ Jili ñang directement da lay fay kon ni amul amul pertement kon sëñ Jili yaa ngi yem ci wàllu communication te ginnaaw yàlla dogal social wax nañ euh, commu euh, organisation wax culture wax lii lépp nag communication moo ko war a génne waaye yéen ñëpp nag na ngeen xam ne bu bii mu di li ngeen bëgg lépp nag dañ koy aj ci bi rek tey xaar mu ñëw kon 686 13 13 mu ne dinañ songu Wave bi. kon sëñ bi fu ngeen toll ci communication bi. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. Euh, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Euh, ñu ngi nuyu mbokk julli yëpp mbokki taalibi yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo seetaan ci MK TV ak ci Lamp Fall TV ak mboolem organes yi nga xam ne ñoo ñuy topp di nuyu tamit ñi nga xam ne ñooñu ñoom lañ bokkal jotaay bi ci ci ñoom lañ bokkal jotaay bi euh, Alaaji Fàllu euh, communication euh, liggéey bi da ko xaaj ñetti xaaj mm-hmm. xaaj na ko ñetti xaaj liggéey bi muy lu jiitu màggal mm-hmm. ak biir màggal gi mm-hmm. ak bu màggalee ba noppi Euh, lu jiitu màggal xam ngeen ne euh, commission culture culture ak organisation ak sociale dégg ngeen li nga xam ne moom lañ fi gaaral muy ay taxawaay yu am solo yoo xam ne euh, yu mat a fesal la xam ngeen ne commission bi nga xam ne moo yor wàllu organisation xam ne moo yor wàllu cet gi wala entretien bi ak taxawu taxawu barab bi ba sorel ko lépp loo xam ne méngoowul ak moom dana waaj bu bu màggal gi jublusee dana saase piil yi euh, raxasaat jumaa ji dindi poussière yi waajal nag biir màggal gi mm-hmm. xam nga ne loolu bu nekkee ci Euh, biir jumaa ji rek na teg mën na am euh, nit ñi nga xam ne war nañ cee participer ci wàllu googu. Mm-hmm. duñ ko xam. Mm-hmm. moo tax ko euh, communication dana waajal ci ci foofu. Mm-hmm. ay ay ay ay reportage yoo xam ne day wane day yëgle li nga xam ne moom lañuy bëgg a def. muy fexe ba képp koo xam ne bëgg na cee participer mu yëg mm-hmm. li nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mm-hmm. mi ngi koy waajal ci jumaa ji ci sensim pilier yeeg ventilateur euh, yeeg euh, ah, entretien yeeg yu yàqu yeeg xeetu deme noonu mm-hmm. mu fexe ba euh, ñoom ñu yëg ko même sax bu amee fu peinture bu ndox mi yàq ak yu demee noonu loolu lépp organisation da koy da koy da koy. ba ci biir barabu sëriñ bi. lépp moo xam làmp la moo xam mm, lu mën a doon moo xam lu ñu war a peinturaat la. moo xam karo bu toj la ñu war koo defaraat. lépp rek euh, dana fexe ba mu àgg ci nit ñi incha allahu taala ngir ñu mën cee li sëñ Abdou Khadre doon wax léegi. képp koo xam ne bëgg na cee participer. Mm-hmm. da nga gis li nga bëgg def nga gis li nga bëgg a def. nga mën koo nga mën koo nga mën cee def. li nga xam noonu nga ko nga ko bëggee. Mm-hmm. kon loolu mooy lu jiitu màggal gi. Euh, commission bi nga xam ne ñoo yor wàllu culture ñoo yor wàllu xam-xam bi. ñoom tamit euh, dégg nga ni ko sëñ Abdoul Ahad li ma léegi. muy amal ay waxtaan. Euh, laata màggal gi agsi dana am amal ma juróom benni waxtaan. am ci boo xam ne bu mag lay doon. Mm-hmm. waxtaan yooyu tamit danañ fexe. ba nit ñi jot ci yëg ko euh, man koo man koo bàyyi xel ci jumtukaay yi nga xam ne fa lay jàlle moo xam ci site bi la moo xam organes yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal euh, danañ fexe tamit waxtaan yooyu mu mën a jàll mu mën a mu mën a tasaaroo ba xam ngeen ne euh, wax na ci ay ay ay tomb yu bari yu am am solo yu yaatu hm. sëriñ beeg tukki bi sëriñ beeg yoon wi waaye sëriñ beeg dongo yi waaye nag sëriñ beeg ñi nga xam noonu doon dunde eh, ci ci biir réew mi nga xam ne ci la ci la ci la nekk yooyu yëpp kon dafa aaja moo àgg ci nit ñi kon loolu bu àggut ci nit ñi daanaka lu ko tax am solo lu solo solo rëy wala lu lu lu tomb yi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane uhuh. am solo uhuh. bu àggut ci nit ñi rek uhuh. eh, daanaka Euh, li mu doon jariñu wala. wala sunnatuhu insa rabbi ubayin. kay mi ngoog <laughs> mi ngoog loolu nag. Euh, des na ko fexe ba mu jot ci ñëpp. Mm-hmm. xam ngeen ne jamono ji ñu toll euh, dañoo am gox bi nga xam ne fi la nekk wala jamono ji nga xam ne fi la nekk. Mm-hmm. dañoo am lu lëkkale mboolem organes yi xam ne ñoo nekk fii. Mm-hmm. kon ñooñu tamit dañu fexe ba. ñoom ñoo am lien bi mm-hmm. am am ko ci anam gi gën mm-hmm. ñoom ci ñu mën koo jàllal la seen kii ndax njëriñ yi gën a mën a yaatu mm-hmm. lien bi day yem ci ñoom rek wala même adduna bi yëpp ku ci am soxla même même àdduna même adduna bépp biir réew mi bitim réew ñëpp dañ koy jot li fiy xew lépp ñu mën koo jot euh, ci comme ni nga xam noonu laa ko waxoon léegi avant màggal Euh, sos na ay ay ay ay ay ay ay ay émission yoo xam ne sensibiliser rek moo ko tax a jóg sensibiliser rek moo ko tax a jóg fexe ba communiquer walla fexe ba euh, yëgle ba nit ñi danañ mën a màggal si waaye nag buñ màggal see xam ni ñuy màggale dëgg bu bu bu commission culturelle waxee naka lañuy ñuy naka la ñuy mm-hmm. mu fexe ba ak moom àgg ci nit ñi. Mm-hmm. bu fexee ne yan teggin lañ lañ war a bu accès ci barab bi yan teggin lañ war a lañ war a jëfandikoo. Mm-hmm. mu fexe ba mu àgg ci nit ñi. ci misaal léegi sëñ Matar doon na ko wax léegi. muy euh, bu nit ñi bu ñëwee di siyaar si yëngu yëngu bi day bari. dëgg coow yi day bari. Euh, wax na ko léegi di ci boole yu ci bokkut mm-hmm. muy raay mi réeg mm-hmm. jërëjëfe nangam mm-hmm. euh, di dawag euh, wax na ko leen dafa am ci jamono nawet lañ nekk karo yi day tooy day tooy day tarxiis da ciy yomb dëgg la xam nga loolu il faut ñu ñu ñu sensibiliser nit ñi ngir ñu bàyyi xel yooyu mm. xam ne képp koo xam ne dafa jëm ci sëriñ bi mm. dafa war a ànd ak ay teggin yu yu yu mat euh, yoo xam ne bu ja jàkkaarloo woon ak moom mm. ni muy ni muy doxe jëm ci moom bu jëmee ci barab bi tamit noonu la war a doxee jëm ci sëriñ bi kon loolu dafa aaji ñu xamal ko xamal ko nit ñi euh, dégg ngeen sëriñ sëriñ sëriñ Cheikh Mamadou Bassir doon ko leeral ci jamono ji jàll. ci ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy photo xam ne xañ na sax ñu ñu ñu leer comme TikTok yeeg. ak ak ak ak. yi réseaux sociaux yi nga xam ne. ñoo ñi nga xam ñoo ciy liggéey. yi xew yi xew yi nga xam ne ñoo ñoo koy ñoo koy def di ci liggéey. ñu bàyyi xel barab bi ne barabu jaamukaay yàlla la du barabu fowukaay. Mhm. yooyu tamit. Euh, ñoom suñ ñoom waa organisation jël nañ ci ay matukaay. Hmm. waaye nag danañ fexe ba yëgle ko ba ñëpp jot ci. Euh, ba képp koo xam ne ñëw na fi te euh, xamoo ko ñu xamal la. Hmm. fekkoon nag xamoon nga ko ñu teg la ay daan yoo xam ne. Hmm. du nekk loo xam ne mooy mooy li gën. communi commission communication tamit dana dana waajal ay xamle. ay ay reportage wala mm, ay saar yi documentaire yu gàtt mhm. yoo xam dana xamle jumaa ji mhm. jamono ko jamono bi nga xam ne moom lañ ko fondement ak léegi mhm. eh, jamono bi ko sëriñ bi digle ak si Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye nag ak si ci Cheikh Mouhamadul Fadal eh, Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Salih ba ba suñ jën yàlla tey ji Euh, bépp xalifu boo xam ne laal na dara ci jumaa ji danañ danañ danañ fexe mm-hmm. ba gëstu yi nga xam ne euh, commission culturelle def na ko mm-hmm. ñu fexe ko euh, def wutal ko ay ay ay ay image mm-hmm. wala ak ay ay émission yoo xam ne dana xamal nit ñi cosaan li cosaan la waaye gis tabax bu toll nii rek te xamoo cosaan li te defade ko defar defarin wu metti ci jamono ju ju ju jafe kon loolu danañ ko jéem a danañ ko jéem a danañ ko jéem a amal danañ amal tamit ay ay ay ay ay ay ay jotaay jotaay yoo xam ne ganu màggal la tudd ganu màggal ganu màggal nag dana leeral lan mooy cosaanu màggal dana leeral lañ mooy cosaanu màggal naka lañ koy defee naka lañuy ñuy siyaare kenn mooy njëkk digle màggal gi kenn moo ko indi Touba yooyu yëpp danañ ci danañ ci danañ ci communiquer xam ngeen ne bu demee ba nag ba dugg ci biir màggal gi kon loolu mooy li nga xam ne mooy mooy njëkk mooy njëkk màggal bu duggee ci biir màggal gi nag danañ xam ngeen ne daayira Muxaddamatul Xidma ab liggéeyam dafa yaatu mm-hmm. Mm-hmm. biir jumaa ji la ak bitti jumaa ji hmm. waaye nag dafa am beneen liggéey boo xam ne sëriñ bi di leen ko dénk muy gan ñi nga xam ne eh, ñooy ñooy gani chef religieux mooy kilifa diine yi hmm. kilifa diine yooyu daayira Muxaddamatul Xidma bokk na ñi nga xam ne ñoo leen di dalal hmm. eh, ba eh, di leen taxaw ba keroog ñuy ñuy ñuy ànd ko ak daayira wilaaya Euh, euh, ñooñu danañ leen dana danañ danañ dem foofa xamle xa xamale nit ñi. Mm-hmm. Euh, nekk nekkin woowu nga xam ne daayira mu xadd dana ko dana ko def foofa. Mm-hmm. gan ñi nga xam ñooy gën a gën kilifa diine yi. ñoo xam ne nit ñi ñi mm-hmm. dalal ñooñ ñu dalal leen waxtaan ak ñoom ñu wane seen seen seen mbégte ak seen yëg-yëg ci ci kii bi ñoom tamit dana fexe ba nit ñi jot ci Euh, suñ mbokki journaliste yi tamit danañ leen waajal mhm. euh, moo xam télévision la moo xam bindkat la moo xam euh, rajo la mhm. moo xam kuy kuy kuy jël vidéo la moo xam kuy jël solo moo xam bindkat la dañ leen waajal ay carte de texte mooy carte yoo xam ne mhm. dana leen yombalal seen liggéey carte yooyu li mu jar mooy yombal leen seen liggéey xam ginnaaw jaa jumaa ji dafa nekk euh, euh, spécial buñ fi dikk buñ fi dikkee war nañoo xam mm-hmm. journaliste bi ci ban organ la bàyyi ko ak mooy kan mm-hmm. euh, buñ ko identifié ba noppi nag jox ko kart boo xam ne dana dana ko yombalal liggéeyam carte boobu li mu koy yombalal dana tax bu taseeg ñi nga xam ne ñooy ñooy organisé. Mhm. danañ xam ne kii kat jaar na ci. fi mu war a jaar mhm. xam ne du tese kenn ñu ko ah sëñ bi li ngay def ndax am nga ci ndigal. Mhm. kon loolu kart yooyu loolu lay jëriñ. danañ leen yombalal tamit ñoom. ñoom ñoom ñoom journaliste yooyu képp koo xam ne bëgg na information ci jumaa ji Euh, moo xam ci jumaa ji la ko soxla moo xam ci liggéey mu xaddamat xidma la ko soxla mm-hmm. moo xam ci ci lenn ci ci sëñ bi la ko soxla mm-hmm. am na commission commission euh, euh, commission culture mm-hmm. def na ci ay gëstu yu yaatu ku ñëw dana la booleeg kenn koo xam ne dana la dana la waxal li nga xam ne moom nga soxla ci ay gëstu kon loolu moo xam da ngay bind moo xam moo xam da dangay da ngay da ngay def leneen. moo xam taarixu jumaa ji nga soxla moo xam lu ci sëñ bi nga soxla kon loolu euh, dana dana dana dana dim dana leen dana leen dimbale li tax ñu ñuy def loolu ngir bëgg ñoom buñ fi buñ fi accès. Mm-hmm. am information yoo xam ne yu wér lay doon. xam ne duñ tesee kenn ci mbedd mi wala tesee kenn rek. Mm. tàllal ko micro mhm. mu wax mu wax lu ko neex walla wala mu wax loo xam ne mhm. day jàpp ne xam na ko sax te xamu ko kon loolu moo tax ñu ñu ñu kii doon dana am tamit ay kuréel am na kuréel kuréel boo xam dana fi dana dana fi nekk fexe ba euh, euh, julli yi fi am conférence yi fi am ab bu mag boo xam ne dana taxaw yooyu ba euh, ni nga xam ne noonu la ko noonu <clears throat> noonu noonu la nit ñi bëgg a toppi màggal gi mën koo topp communi commission communication tamit dana fexe ba euh, am na daayira daayira Rawdu Rayaahiin hmm. am na waxtaan yu ama am solo yi muy def hmm. euh, ci kër Sëñ Tuubaa gi ak ci yenn ci barab yi hmm. moom tamit dana fesal ñooñu tamit seeni seeni seeni i liggéey kon daal dana fexe tamit ba nit ñi seeni seeni seen i nit ñi nit siyaare comme waxoon naa ko léegi ni Moukhaddamatoul Khidma di setale jumaa ci biir màggal gi xam nga yooyu ay technique technique dëgg lay laaj technique kii lay laaj hmm. danañ fexe ba fésal ko ba nit ñi xam ne ñoo ñi ci sonne dana fexe fexeti fésal ni nga xam ne noonu la ñuy fexe ba lu màggal gi xat-xat lu tax danañ ko nettoyé xat te du yàq siyaare danañ te du yàq siyaare bi dara hmm. Euh, danañ fexe tamit sécuriser nit ñi tamit ba ni ba ba ba danañ mën a dugg génn ba euh, kenn ni ko suñu mataa doon waxee léegi euh, ñiy jaawale poos jàmbur yeeg ñi ñi gaañoo gi fexe ba ni ko suñu Abdou Khadir waxee léegi ci wàllu docteur yeeg yooyu danañ fexe ba xamle yooyu ba nit ñi dana mën a ñëw màggal si ci màgg dana mën a ñëw màggal si ci jàmm Euh, loolu na xam ngeen ne communication dana euh, dafa yaatal ab liggéeyam ci képp koo xam ne euh, moo xam état la moo xam defal defalkatu defalkatu yàlla la dana fexe ba dalal la nga fésal sa sa liggéey léegi rek ñu ngi fi doon dalal waa service d'hygiène barki démb rek ñu ngi fiy dalal waa Euh, ñu yor mbala mi. Euh, ku noonu tamit noonu lañ koy yaatale ñu yor wàllu faj mi ñu war euh, ki yooyu ba. nit ñi tamit kenn ku ne boppam ubbiku ci yu bëree bëri. ñi nga xam naa daal dañuy liggéeyal mbooloo mi. dañuy liggéeyal mbooloo mi. ba ba njariñ li gën a man a yaatu. ban xam na ñi ay ay taxawaay yu am am solo lan taxawaay ci dëkk bi. waaye moom lan taxawee ci yoon wi. yooyu daal xam naa suñ Fallu moom la ñuy tënk ba yëf yi ñëwaat. macha allah macha allah Cheikh Abdou Khadir communication moom moo yaatu moo tax euh, ay détails am faaw mu xaw a euh, sori ndax bànqaas yëpp benn bu ci nekk dafa waat ak euh, communication waaye bu ma déggee xam naa ku mel ne sëñ Fallou si la nga xam ne moom métier moom ci la yëngatu li ma déggee wax ji daal da ngeen informer nit ñi waaj a màggal si bañ xam li ñu war a xam waaye da ngeen fexe ba ñu màggal si wut ngeen communiquer leen ak màggal gi bañ mel ne fekk nañ màggal gi ndax ñu bare bëri dañuy jaawale information ak communication mm-hmm. waaye yaakaar naa ne informe mooy xamal nit ki ñëwagul moom li mu war a xam wala li muy dégg te gisul ko mm-hmm. waaye nag fexe ba communiqué ko nag ak nekk Allemagne ak Siin ñu mel ne mi ngi dund Touba mm-hmm. loolu daa mel ne communication moom danañ ci taxaw bu baax a baax kon euh, sëñ la sëñ Abdou Lahad damay del xam naa tur bu gàtt ndax euh, fi may gën a ñor nag dama ko doon bañoo a fàtte mooy ñu ni waajtaayu siyaare sëñ Touba ndax yaakaar naa ne lu jëkk moom mooy xam ni muy siyaare sëñ Touba ni sëñ Tuubaa wax ne ku may siyaare siyaare ma nii wan wàccaay ngeen jël foofu. jërëjëf euh, Serigne Fallou. Euh, jërëjëf sëñ ñu bañ a fàttali numéro bi nag 77 686 13 13 waaw li ñuy wax lépp nag bu ñu dugalee foofu jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Abdou Khadir mi ñu dab ci waxtaan wi euh, sëñ Mokhtar tamit am na solo sëñ Abdou bu Bousso communication. waaw bu ëllëgee muy gën a communiquer ci force track rek <laughs> maanaam <laughs> suñu fàllu si la xam naa ne ah, moom moom <laughs> mën naa gën a jege si ji li ngir moom it muy communiquer ci force track maanaam benn benn benn benn cinq minutes nga fexe ba tëgg ci lu bëree bëree bëree bëri loolu jàpp naa ne ci ci ci li ngeen di communiquer la waaw ah, kon am na formation waaw waaw waaw sëñ bi formation bi daa xaw a gaaw waaw waaw léegi su ko defee euh, sëñ Fallou hmm. sëñ Matar ñëw na ci léegi ci wàllu sensibilisation bi hmm. ci biir bi may exposé dafa dafa dafa mel ne dama doon sédd ñu ci des ba yemoon rek. ci mm-hmm. li ñu war a def ci waajtaay bi. Mm-hmm. parce que sagam euh, temps kii bi xëy na temps bi bëriwul te mm-hmm. ñu war a participer. dafa bëri moo tax biir màggal gi tamit soo ñëwee am na liggéey bu ci lañu saxaafa di def. boo xam ne am na exposition bu mag. boo xam ne war nañ koo def fii. muy exposé lépp lu aju ci histoire jumaa ji. waaw mooy mooy ba ko sëñ bi di xalaat ba léegi rek laa ko laa mën a wax. macha allah. ba mu ba mu digalee maam Thierno ak Mor Moussa ak sëñ Fallou ca woote bu njëkk ba. 1926. ba ci jamono sëñ Sidi Mokhtar. lépp luy histoire jumaa ji maanaam nag ci ci ci tabax bi. ak ci liggéey bi ci biir. i imaam yeeg. noddukat yeeg daaray kaamil ak daarul maxaarif ak. lépp danañ ko exposé bi. mu am ay ay thèmes. ren jii mu am thème boo xam ne moom lañ tànn muy almubaaya nga xam ne mooy thème exposition bi. dañ ko exposé dana am ay brochure tamit yoo xam ne. danañ ko defar muy tënk histoire jumaa ji li tàmbalee ci sëriñ ba sëriñ Sidi Muxtaar dañ ko traduire ay langue ngir képp koo xam ne mm, nasaraan nga wala kuy gëstu ku ñëw fii bëgg a xam lan mooy histoire jumaa ji duñ la mën a bàyyeek ay giddi yu jógee fële rek ñëw di la yoo xam ne daanaka euh, xam-xam bi bëriwul su ko defee da nga mën a sukkandiku ci brochure yooyu daayira bi waajal mhm. mën na wax lu leer tubaab bi nga àndal <laughs> man koo man koo man def loolu exposition bi day ànd ak ay panel yoo xam ne ñoo koy accompagner ay thèmes yu wuute hmm. am na tamit ay boroomi xam-xam yu ñu waajal yoo xam ne danañu dégg français dégg arab hmm. wolof ba journaliste bu fi ñëw hmm. bëgg gëstu ngir xam lu leer suñ jili wax na ko léegi jàpp naa ne kii information lu leer lu wér rek la war a am waajal nañ ay nit ñoo xam ne loo bëgg xam ak image boo bëgg a jël ñu boole la ak eh, ñu la saytu ci wàllu googu nga amee ko ni ko bëggee loolu it commission culturelle eh, waajal na ko ren nag dafa am euh, benn kuréel bu mag boo xam ne euh, dañuy dañuy dajale ñi nga xam ne dañoo bind ci sëñ bi ci wàllum nasaraan maanaam ñi nga xam ne dañoo def ay tees ci sëriñ bi ñi nga xam ne bind nañ ay téere yu am solo di ay universitaire di ay boroomi xam-xam yoo xam ne duñ ay arabisant mhm. mais ay tubaab lañ ñooñu dañoo ñëw am ndigal ci Cheikh Amadou Bassir ngir ñëw ngir wane liggéey boobu ñu def mhm. léegi nag bi ñu Cheikh Amadou Bassir boolee ak ñoom ñu xam ne mbiri xam la mhm. ñu bëgg a boole ak ñoom fi ñu defee exposition Moukhaddamatoul Khidma ñoom it ñu yaatal leen ñu exposé fa sa allah ñoom tamit da journaliste yi képp koo xam ne bëgg nga euh, dalal koo xam ne dafay xard maanaam dafay gaaral téere boo xam ne dañ koo def ci sëriñ bi wala yenn témoignage yi am solo yi nga xam ne ab professeur université moo koy def wala borom xam-xam yu mag yi te loolu mooy yaatal njàngaleem sëriñ bi danañ ànd ñoom mhm. ab liggéey fii ci biir magal gi muy lu am solo loo xam ne dañ koy def mooy liggéeyu commission culturelle ci biir màggal gi ànd ci ak commission communication ci lépp loo xam ne daal maanaam organe bëgg na ko te aju ci xam-xam dañuy waajal ay nit yoo xam ne danañ leen ci tontu incha allah su ko defee nag ci li nga wax léegi ci teggin yi naa dañ dañ koy tënk rek ndax xëy na temps bi li ci bëriwul euh, li ci jiitu rek mooy xam nga ne barab bi sëriñ bi daf koo fonk lool daf ko fonk lool wax na sëñ Modou Xari Bousso hmm. sëñ Modou Xari Fañang moo ko nettali hmm. mu ne euh, Touba sëriñ bi daf ko fonk ngir ngir ngir ngir ay mbir hmm. yu yéeme ndax nee na euh, ñi ko bëggoon dafa bëri ñi ko bëggoon dafa bëri ndax sëriñ bi junñu na ko sax ci li tax mu fonk Mbàkke fi laa juddoo fi laa njëkk a yonente bi fi ma Cheikh Omar Fouti yu doon seet see yi fi baatin la kon bëri na ay labraar suñ mu doxee noonu ay labraar yu ko bëggoon yoo xam ne Euh, ñoom ñëpp dañuy xeej sama borom. Mhm. mujj sama boroom ne Touba tànnal. waaw ah. Touba tànn ma man sëñ Touba ngir ma moom Touba. wallaahi moo tax Touba awuma ci moom sago man it amut ci man sago. Touba gore. waaw waaw moo tax sëriñ bi. Touba jaraloon na ko lu nekk bëgg na ko lool fonk na ko lool. Mhm. moom rek la bëgg fii rek la bëggoon a nekk. cal rujuhi ila qawmi saadatanaa yooyu muy wax ak yëpp. Mhm. dëgg la mi ngi ñaanal lu Sénégal waaye moom del si tuuba nekk ci ay nitam la la la bëggoon ah. ni ki noonu boo dee xool barab la boo xam ne fu ne sëriñ bi teg na fa tànkam ci bii muy wër Tuubaa ba ba yàlla dogal mu gisa leer gi fii nga xam ne mooy kii bi léegi biir mooy ñun ñi yaakaar ñu suñu yaakaar tey ak ëllëg fii lañ mujje gisee jëmmam mu nekk fi waxuma la màggaayu barab bi ak fi ko sunu borom teg ak ni mu ko moomee waaye kon loolu lépp war naa tax waxuma la ñëw ci penc mi wala jumaa ji rek waaye képp kuy màggal si ak foo mën a nekk ci Tuubaa war maal barab bi ngir jëmmi sëriñ bi ndax ci barab yi ñu war a war man la bokk sëriñ bi it laabiré nañu ngir bañ ñu loru da si yëpp laa doon wax naan euh, sama bakkan laa ci gar si saaliwu ne man sama bakkan dama koy jaamoo yàlla ñoo ñëpp kenn ku ci nekk dafay laabiré rek mm-hmm. dañuy laabiré rek ndax bay yi sëriñ bi wax wa jannatan li zalikin muridi wa junnatan han haatikin maridi mm-hmm. ci eh, biir la sëñ Saliou daf daf ñoo delloo ci ñu càmbar xasida seeb seeblaat nag bëgg teggil loolu euh, murid yi tax ñoom ñaar kenn ku nekk ba basiran wa nasiran day am ci ñi fiy toog dëgg la dëgg la waaw su ko defee sagam àjjan lay doon ci ku bëgg a doon ab pakk ci ki bëgg doon marit sëñ Matar wax na am na ñoo xam ne dañuy màggal si am ñoo xam ne dañuy ñëw nag ngir laneen su ko defee nag ki bëgg a jariñu li ci jiitu ci teggin yi nga war a làmboo mooy nga laabal sa xol ci yéen a ju rafet sol col gu yiw moytu jaxasoo góor ak jigéen mm. bañ yëkkati sa baat ca kaw mm. ànd ak ay teggin mm. te bañ fee indi benn jubluwaay bu dul jaamu yàlla ak siyaare sëriñ bi ak julli loolu mooy li ci jiitu su ko defee nag sëriñ bi eh, ku bañoon ab jaxasoo la te daayira bi loolu jël na ci ay matuwaay ndax lu ëpp junni nit danañ fi nekk di saytu loolu taqale góor ñeeg jigéen ñi su waxtu julli jotee ñu arrêté siyaar yi julli ba noppi sàmm war ma ji liñ fi aaye lépp tamit ñu bàyyi ko xel njaay meeg jënd meeg wecc ku muy manqué la mhm. caaju lépp suñu mataar jaar na ci léegi ak yi nga xam ne war nañ koo moytu ak yalwaan bi ci biir jumaa ji mhm. dañ koy aaye ak taxaw di géew di wax nit ñi loo xam ne bokkut ak li nga xam ne mooy li war a am yooyu yëpp dafay mat moytu naka jekk dañ koy aaye rawatina su màggal ñëwee mhm. su ko defee sëriñ bi dafa digle ne ku may siyaare si gannaaw boo laabalee jiital sa xol na nga dox ndànk ànd ak dal ñëw sagam ci sëriñ bi nga jëm jërul ngay wadda wax dëgg yàlla sagam yaa ngi jëm ci moom wax dëgg yàlla cërul wàdd di laal bunt bi aussi tamit maanaam loolu dafa dafa doon phénomène bu xew boo xam ne rek da koy gis sax ñuy wër kaaba gi wala ñuy daw safa ak marwa nan ngay mën a nekk ci ponk boo xam ne da jariñ ci sa diine ngay soxlal leneen boo boo ko dee nga xaar ba noppi bopp waaye sinap yi ak tik tiktok yi maanaam fi mu ne nii euh, ak bëgg ay wii yu bëri ngir gañ a xaalis tax na ñu bëri dëgmal fii mu yàq seen pas-pas yàq seen pas dañ dañ cee dëgmal image mm-hmm. ci ñu bëri mm-hmm. di jël ay image yoo xam ne léeg ñun dañuy interpellé ci bëri te loo xam ne mm-hmm. wala kooku dafay ñëw ngir photo parce que ñun aayewuñ ku ñëw rek jël image parce que jumaa ji ñëpp bokk bu dee góor rek góor jigéen jaxasoo la bañ waaye léeg-léeg da ngay gis ku ñëw jël ay image ba pare dem këram monté kook ay musique te musique yi yooyu dañ ko jàppewul musique muy musique yu mélodie yi di tàggaate mhm. di tàgg eh, ñu baax ñi wala yu demee am na ñoo xam ne jàppewuñ ko musique barkeel lañ ko jàppee mhm. te loolu ci ci boor ci sareha moom musique la koy jàppee mhm. te loolu lépp bokkul ci ay teggin kon daal lépp loo xam ne lu méngoo wut ak teggin la war nañ koo moytu ci barab bi loolu lu mat a moytu la te eh, def loo xam ne sëriñ bi digle diglewu ko loolu ab bi da ko war a moytu sëriñ bi dafa wax ne képp koo xam ne da ngay ñëw ci barab bi mhm. di ma siyaare wala nga bëgg maa ñaanal mhm. am na lum bind sëñ Saaliwu fonkoon na ko lool daana ko joxe mhm. ay yu bari la waaye bi nga xam ne sëñ Saaliwu daana ko joxe lu bari mën naa koo wax muy sëñ Fallou tamit def na ay bayit sëñ Basiiru def ko sëñ Seex Gaynde ma def ko ci boo ñëwee ci barab bi nan ngay nuyoo sëriñ bi ak yu demee noonu sëñ Fallou bay bind na ñaari bayit yu am solo muy yaa sayidan fil maali qalla sarwaahu wa yaa muhibban fuaadi dahra maswaahu inni ataytuka li wajhillahi zahirikum abqi bihi nayla ma arjuhu arjuhu arwahu mm-hmm. sëñ basiru yaakaar naa ma wax yaa rawdatan sharafat bi cheyq wa zaharat arjauha bi jawalil aylami al alami mm-hmm. soo nuyoo sëriñ ba noppi boo munut bay jooyu nga nuyu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mm-hmm. boo noppee nga def ay xulwa ay xulhuwa xam ñeen fukk nga man moo xam fukk bi na soo noppee nga tàllal say loxo ñaan ñaan gi boo ko waxee dugg nga ci ñaanal nga sëriñ bi te mooy gi muy allahuma bi yàq wajkal karim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbi waxfir lii wali walidayya mm-hmm. xam nga ñaanal nga sa bopp ñaanal sa ñaari wàll waxfir mm-hmm. li walidayya walil muminin wal muminat wal muslimin wal muhaya minum wal amwaati mm-hmm. xam nga ñëpp dugg nañ da daan ne wa xabli xaddika tàmbali ci sëñ bi wa xaddimika wa xaddimi rasulika sallallahu taala alayhi wa sallam maa ahbabtuhu wa radituhu lahu fi l aali wal maali bila afatin wala kadrin wala istidrajin kon sëñ bi ak teggin yu bëri xablal xibbati inda wuduliha wa baada wuduliha abadan amin ya rabbal alamin nee na loolu soo ko waxee mooy ñaan gi ma bëgg ñu ma koy ñaanal kon taalib bu nekk war na gëstu ji la euh, fexe ko mokkal muy lu am solo loo xam ne daf wal jal bi la waaw loolu sëriñ bi noonu la digee digle ñu ñu ñu ndax ñaan googu du jaadu ngeen ngeen defar ko ay fooy mu nekk français ak arabe waaw kay incha allah incha allah. nga ne ku ñëw bëgg ko mën cee am. incha allah commission culturelle bi dana dana ko defar. incha allah ngir taalibe boo xam ne bëgg nga ko rek. Mm-hmm. mën cee am loolu moom incha allah dinañ ko defar. loolu daal ci tënk. Mm-hmm. ñi ngi koy ñi ngi ciy laabiré bokki taalibe yëpp xam naa li des ci temps bi bëriwul am lu bëri luñ bëgg a wax waaye dañuy bàyyi xel sunu bokk yi ci des ngir ñu mottali seen i kàddu. macha allah jërëjëf Cheikh Abdou Lahad eh, jërëjëf bokki yi Euh, ñu fàtt rek li may wax lépp nag xaalis yi koy def 686 ginnaaw boo defee 77 13 13 686 13 13 suñu fàllu sa ñaari junni na daal dugg léegi na yéeg bi dugg ak Ahmadou Rafaay mu Cheikh Amadou Fadel nag mi mi maa ngi koy nuyu bu baax kon Cheikh Amadou Rafaay ah. moom laa njëkk a laaj dix moom <laughs> waaw moom moo léegi na ma organisation la sosu kon daayira bi sa kam 94 la am na ñaar 28 ans la ci ci ren am na ñaar fukki at ak juróom-ñett mooy Orofi Touba waaw xam nga nag moom beneen affaire la moom sëñ daxaa moom beneen affaire la moom ah. mooy sama inspecteur hmm. sëñ jii di dese woon juróomi minute eh, kon eh, sëñ sëñ sëñ Maxtaar Kan booba tey ngi bébalee damaa xamul dañ ni nu mu demee nii 686 13 13 mooy Orange Money bi mooy Wave bi hmm. sëñ Maxtaar ci léegi nii am na yu sëñ wax ni wane na ne yéen ci wàllu organisation xam ne seen dégg naa muy wax affaire drone yeeg yooyu loolu yaakaar naa léeg-léeg nga seen benn drone bu naaw taxamoo ku ko naawal yan matuwaay ngeen di jël ci loolu. waaw jërëjëf sëñ bi ñu ngi ziare baax sëñ boobu si Abou Amar Fahim Mbacké ñu ko ñaanal borom bi may ko taw féex. amiin waay yokk ko faram. amiin mbégtam julli ñëpp la. ñun ci ni ko waxee léegi nii. xam nga ci piili jumaa ji. man am naa yéene yi laal quatre mille cinq cent quatre vingt deux piles. quatre mille. cinq cent quatre vingt deux piles yi ci waay am naa yéene laal yëpp. quatre mille cinq cent quatre vingt deux piles ñoo ñu ne ci jumaa ji. waaw ñeenti junniy piles. <laughs> ak juróomi téeméer. ak juróomi téeméeri piles. ak juróom-ñett fukk ak ñaar. ak juróom-ñett fukk ak ñaar. am naa loolu mooy liy tàkk ci jumaa ji. waaw am naa yéene laal lépp. am naa yéene laal cent neuf xubba yoo xam ne bi bi ngeen am na. lu ko nekk muy vingt kilos. Eh, loolu yooyu ñaata xutbaa ne ci jumaa ji nga ne. cent neuf téeméeri ak juróom-ñeent. waaw loolu mooy bi loolu mooy bii jumaa ji rek. Mm-hmm. waxuma yokk ma yokk yi. li nga xam ne kon moo ñuy xaaj ab liggéey réen trop. xutba bu naan vingt la waaw kon waroon waroon bàyyi xel ne kon liggéey bi yombut. Mm-hmm. ñi nga xam ne ay drone nag yi ñëw ci jumaa ji jël loolu sart mooy rek da ngay ñëw ci jumaa ji boo ñëwee ci bureau bi nga wax marque drone bi. ñu xool ñu ñu la ñu xool ko nga jël ba pare hmm. ñëw ñu xool li nga jël hmm. li ci nekk ayib ñu dindi boo tëye def ko nag hmm. am na lu koy daane am na lu daane doroñ waaw ah yéen garaaw ngeen lu koy daane mu ngi taxaw moom lu ko gis da koy daane moom <laughs> lu koy daane xanaa doo ko sànni kasaalika loolu nga am am nañ koy jaar yooyu kasaalika ñii xam ñii ñoo def film tamit di sàcc film bi tamit danga xam ne fii moom sàcc fii mel na lu yomb xam nga ñun waxuñu waxuñu bu kenn jël image. waxuñu bu kenn jël son waxuñu bu kenn jël say dañ ne nan ko saytu jëlal information bu leer. xam nga kon kooku ubbi na la bunt. dëgg waaye nag ki bëgg nag def loo xam ne ni nag day indi yeneen. te xoolal siri ni mu bari Sénégal Touba Sénégal. ni mu baree. tey ni mu suñ bëggee bu fekkee ba ngay bàyyi seen seen seen seen lool rek. Hmm. kon looy wane. sàppal sàppal ji day bari day bari lool moo tax ñu bëgg ko. tekki aw yoon rek. lañ toog tam mooy. Euh, bunt yi. bunt yi maa ñu xam ne bu ñëpp bëggee taxaw ci bunt yi toog ci bunt yi baare ñiy dox. dana jafe. dëgg la nag kon nit ñi fu ñu jaar moytandiku trottoir bu njëkk bi. ñi saa ci ndimbal dem ci bu ñaareel bi. ndax jàll bi mën a yomb. li ñu doole mooy tamit ginnaaw màggal ba ki suba ka gis nañ ne oto yi yii yëpp ay nit. di ñibbi. dañuy gën a jege si jumaa ji trop. Mhm. te day indi buuxante bi day gën a day tar ndax suba la màggal. Mhm. ak ginnaaw suba li mu doon màggal. Mhm. day ñaari bi yoo xam ne moo gën a metti ci liggéey bi. Oh. kon oto yi nañu dimbali. ngir yàlla ak Sëñ Tuubaa. Euh, sori le jumaa ji ba ñuy wàññeeku. ndax buuxante bu tamit mën naa jur ay xëccoo. kadaalika ñi yor ay jur. jóge daral jëm seen kër sëriñ hmm. wala boog ñu jur ñu ñu jëli jur gu bëri bëri hmm. na ne sor na jur gi jumaa jën ndax ginnaaw bi doon sax ay dafa dañuy ur ay coona hmm. day jàll ñu raxasaat ñu raxasaat télé bi ak oto village yi nan jéem a sori la si oto yi ak jur gi di wër pénc mi ndax loolu bokk na ci li koy yokk taar tey jaar fi lu mu bàyyi du ne ab liggéey la juraat noonu bu bun jumaa jëmit barab yëpp jox ma barab bu ne daa am entre góor entre jigéen ñu bàyyi xel loolu baax a baax góor ñi jaar fa góor ñi jaar jigéen ñi jaar fa jigéen jaar te mooy te ko baax col ko gi niroo col ko góor. Mm-hmm. loolu la ñu bàyyi xel baax a baax. Mm-hmm. jigéen ñi mm-hmm. amal dog bu leen xamee. da nga koy def waaye sol sa caaya. góor ñi it am dog leen leen xamee di. waaw kay sol sa caaya. sol ab ab góor gu takk jaaro ndax da nga dugg. loolu yooyu yëpp mm. da ko war a moytu ko baax a baax. góor bu takk jaaro dana fi dugg. <laughs> waa si. nu euh, ma nii daal xam nga ni nga war a nga war a solo solo diine mm-hmm. li nga war a moytandiku góor xam ne na ko war a may ci ay ci ay ci mm-hmm. ci takkaay mm-hmm. xawees na ko na ko ñëpp wormaal góor gi na yem ci li leen islaam sartal ci takkaay ak ci col jigéen ñi mel noonu bu ko defee lépp jaar ci yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa nag ginnaaw am ngeen anti doron moom koy wuti leen tey am anti sàcc euh, sëñ jiri ñëwaat nañ de yaakaar naa moom numéro bi ñor na la 77 686 13 13. ndax yaakaar naa da ngay moom da ngay tàllal mbattu si rek. ngir ngir 4582 piles yoo xam ne yëpp bu ci lakk dañ koy war a sensé bu ci nekk dañ ko war a fomp ak 109 ventilateurs yaakaar naa loolu buñ ci boolewaat leneen capital rek lay doon la su ma ñëw nag ci wàllu communication liñ soxla ñoom culture lañ soxla yan kàddu nga yëkkatiwaat ak. waaw moom de xanaa di soññewaat rek. soññee gi nag mooy li ma wax léegi rek lu waaye def sa bopp la mm-hmm. waaw li mag ñi naan kenn deful kenn dara waaye kenn defulut kenn dara dëgg la waaye def sa bopp waaye rawatina nag lu jëm ci sëriñ bi mm-hmm. ndax ki la yoreel fukki weer ak mm-hmm. ñaar fukki fan ak lu ak ñaar fukki fan ak juróom def naa juróomi fan yi nga xam ne dañ ko war a jéem te moom kat li mu ñuy wax sunu la sunu biira ndax ñoo koy jariñoo ñu ñëw sant la ko boromam rek lañu ñu doy maanaam yëf li muy rëy rëy li muy bari bari bari lépp soxlawu ci ñun lenn lu ñu sant la ko boroomam mhm. kon yaakaar naa kon li nga defee ak cant la mhm. waaw waru ko daal sa li ci des lépp dañoo bàyyi suñu bopp mhm. ku ci nekk sa bopp ñu am def ci suñu bopp ku ci nekk di puukaree gu di xëccoo ko wane te lépp muy moom wallaahi kon nag juróomi fan yooyu nga xam ne moom la am ngir ñu santale ko boroomam hmm. benn fanam boobu muy benn juróomi fan dama ko ko wodde ndax ñaaree ko jiitu ñaare mujj ko bi ci digg bi rek fukki fan ak juróom-ñetti la hmm. jàpp naa ne kuy murit te sag murit dara di ci dëgg hmm. loo man ci lu baax wala nga xam ko def naa la war nga caa jéem a góorgóorlu ndax Sëriñ Saliou waxoon ne ñaar bu ñu dendee kii di ko fonk kii di ko fonk maanaam ki koy fonk du du du du mës di jug di kawe ki ko dut fonk ba fonk sax te loolu mooy sikk du sikkwut moom mm-hmm. ndax nag day mbir moo xam ni ah, euh, maanaam bu doonu toon dara li ci nekk ci neex-neex mm. moom neex moom xam ko ah, neex na moom def na ko moom li ci nekk ci ay xéewalit neex na saawir neex na baatin ba noppi xéewali bari tamit waaw ah, dëgg ndax ku ci nekkit da nga wax dëgg yàlla mm-hmm. xanaa sant ak ñàkk sant mm. waaye li ci nekk ci bànneex màggal gi moom ku sant du am loolu ku sa yoon nekkut da nga sant ndax da nga gis bénéfice moo nga kon kon jaaduma bis boobu moom lu waaye man lu ak lu mënut war ngaa jéem lu néew ne nga jël sa dara def ko ci ngir jëmmi moom kon loolu moom ñu ngi ci soññ murid yëpp waaye nag soññee gi tamit dana am ñoo xam ne mu faw des nañ ci gën a tudd ndax seen seeni taxawaay dañoo jël seen lépp jooyal ko ci lu mel noonu ndax am na ñu nekk Amérique sëñ Cheikh Dione ak ñi mu àndal ak sëñ Amsatou Lam ñoom. soxna a Thiam hmm. nga xam ne bañ nañ ko dañu benn fondation boo xam ni mu xaddamatul xidma lañ ko de hmm. def ko mu doon lu dëppook jamono. Hmm. mu am maanaa lool ndax man maa ngi seetaan bërki démb rek ci damaa xamut Tawfekh Production xaw ma ci ban kii seet bi fi sëñ Mamour demee. maa ngi seet ñi di ñu tàmbali lancé lu jëm ci wàllu liggéey bi. te boobaay léegi mën naa ne mat na weer. macha allah ngir jaayante yi. nga xam ne seen logo li def dañu ñoom seen yitte mooy màggal koor. gàmm ak gàmm. Mm-hmm. ak bàq ya. Mm-hmm. muy liggéeyu jumaa ji rek. jumaa ji nga xam ne dañ ko def noo xam ni. entretien la ak Ramadan. ak ak ak bàq ya ak gàmm moo mm-hmm. gis ko nga xam ne man ngaa man ngaa toog fa nga toog. maanaam jël sa téléphone. wiiree la ngay wiiree def ko ci. taat mu jot ñu ci jàpp jàpp yi nu am solo ñooñu kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm te di leen xam ne ñu leen di soññi te leen waajtaay màggal gi euh, la ca des ñu ngi sant sëñ Fallou Samb moom mi nga xam ne ak seen sëñ Mafari Ndiaye mi nga xam ne ñooy coordonné wàllu Afrique Afrique nag bu ñu ko waxee rek ñi bañ a tudd ci di lim hmm. réew yu bari ndax Côte d'Ivoire Bénin ak Togo Nigeria ak Cameroun ak fu ci ne am nañu fa nekk hmm. te seenub liggéey macha allah mi ngi agsi Europe Serigne Assane Diop moom defe naa wax moom waxtu na dañ ko yoral cant mm-hmm. ndax man na ne liggéey bi bu yaatoo moom da cee am wàllu rëy rëy rëy mm-hmm. tam jaral ko loo xam ne tamit wax dëgg yàlla mm-hmm. moom dañ koy bàyyi Serigne Touba mi tax muy defaral macha allah donte ñoom ñëpp la waaye moom nag da fees gi dafa ëpp yitte moom da ko doon maanaam bis bu nekk maanaam kenn par kenn lay woo te lu muy wax it yitte ju du génn jumaa ji ak lu jëm ci jumaa ji am na wax dëgg yàlla kon nag yàlla na ko yàlla gën a taxaw te sàmm ko waaye nag euh, surtout sëñ Omar Diop la kon jaadu na dëgg la <laughs> kon loolu moom jaadu na waaw nga xam ne lu jëm ci wàllu Europe moo xam Espagne Portugal ak France ak yooyu Angleterre ak Allemagne ak yëpp ak Brésil ak yëpp moo leen di korlañu hmm. ak ñu ko àndal euh, ñu am nag benn murit boo xam ne tamit moom it danañ ko sant ñu wax sëñ Souley Diagne hmm. waaw ndax wax dëgg yàlla day am taxawaay bu muy taxaw ci jumaa ji ak tamit liggéey yi ñu def ci jëm ci jumaa ji fene mhm. bokk na ci ñi nekk sunu ndër laay wala sunu ndër laay ci lu kët na jonn mhm. waaye li ma wax na léegi rek mën nañoo bañ a sant waaye li tax ñuy sant ñun sant ki ñu koy sant li muy def boppam la koy defal dëgg la mhm. waaye ñun liñ koy sante mooy ñun li ñu yéene te mënuñ ko yombalal gi leen di yombal li ngeen bëgg a def lu googu moo tax bi ñu yëgee julli si jumaa ji rek mujjoon a métti ci mu yéeg escalier yi mhm. ku jaar ci penku bi gis nga liggéey ba mu fa def mhm. ak yeneen yi du doy mhm. tabax jumaa jox ko sëñ mu joxal ko waa mu xaddamatul xidma ak yeneen ak yeneen bari ki démb sëñ Abdoulaye ak ñoom nañ ci Afrique ñu jaf xeeñtu jaar jaare borom Tuubaa yi bu am solo ñoom waa saxaaf defoon nañ ci bu am solo bii nag defaat nañ ci boo xam ne ba njëkk Gabon la woon ci Afrique ak si bi jaaroon bi ñu fay dem bi yi ñu kiyoon yëpp moo leen ko daggal ngir jëmi sëñ Tuubaa te loolu mooy liggéey bi ndax nag foofu dinaa ci gàtt kii tuuti sëriñ bi moom waxtaanee guñ ko mooy léegi sëñ bi suñu baay bi mu tudd léegi sëñ dafaar mm. maa ngi dëgg di daan na dëgg-dëgg sëñ bi dañ ko waxtaanee guñ waxtaanee guñ ko suñu bopp rek la ñuy waxtaane daanaka dañuy nekk rek di seet kii waaye waxtaanee guñ ko daal suñu la ñuy waxtaane li ñuy waxtaane mooy dañuy jural njëriñ rek na nag ñu xamle kat mooy sëñ bi ak <laughs> góor waay sëñ Abdou Khadir nee na woon xamle ko nag mm-hmm. ndax jërut naan ndee ak yéeg di mm-hmm. da ngay jëm seeti la mu bind mm-hmm. nga gaaral ko ni mu nii dëgg la koo ko jox. Hmm. bu ñu nee diw daa bañ sëriñ bi di nga daanaka déedéet da koo umpule. da koo umpule wala mu dajee ku ko xamul te xamal ko ko. Hmm. waaye sëñ bi boo ko bëggee xamal ko ko bëgg mu xam ko. Hmm. jëlal la mbir di jox ko rek. dëgg la kon daal ci commission sociale bi lañ doon wax. loolu moom ak ma Paapaar bu dugg waaye ñu ngi woo ñu xam ne daal ñu ngi xaar ñëpp ci màggal gi ñu jëm. ñu xam ne amuñu lu moom. lan lu gën a rëy màggalu Tuubaa ci ñun. ñu ko wala mu gën ko ci ñun. ba tey. waaw wala mu gën ko ci adduna ak alaaxira nag. doo maa la wax nii. kon nag nañu ko waajal. Hmm. te ku ci nekk fexe mu néew mu bare hmm. nanga fexe ba sas dara dugg ci. te nga jëmee ko ci yéene ji rek. Hmm. boo daa déwén bu soobee yàlla da yëg na defal sëñ Tuubaa rek wóor. wallaahi te barke borom Tuubaa defal sëñ Tuubaa rek wóor. dëgg la loolu wóorul ni. barke borom jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Khadir ñu ngi koy sant bu baax baax di ko gërëm. Eh, dafay mel ne damaa seetlu ñaar am benn waay bu daan dem bu daan bu doon tukki nee na daa jaar frontière u Mali doon dem jënd fa kaasu meew walla kaasu saxaw ak meew yu demee noonu daal mais da ko fa jënd cent franc nee mu dëpp jaar fa koy jaay mille franc mu ne yow soppi ko gaaw na lii bëkki démboo jaay jaar naa fi jënd ko mille franc mu ne ko booba màggal Tuubaa moo ñëwagul màggal Tuubaa dafa ñëw lépp dafa yow loolu di am solo nga gis kooku ca frontière Mali nga xam ne bambara wala leneen beneen bi ci topp ma mës a dégg Abdoulaye Diaw mu ne dafa mës a ànd ak équipe nationale Sénégal ñu dem football yi fenn hmm. nee na bañ dëppee war a ñibbisi na nationale am na fa fukki fan ak juróom nee na lu leen gàllankoor mooy mënuñoo avion ndax eh, mënuñoo am avion ndax murid yi dañoo jël avion yi ngir dem Magal Touba kon loolu moo lay xamal ne moom xaw ma waa réew mi moom waaye bi moom xam nañ sëñ Touba ci hmm. njëriñ njëriñ kese la sëñ moom sa ana bi laa dara mooy njëriñ la àndut àndut ak lor euh, kon kon ñu ngi lay sant bu baax a baax waaye ñu fàttali bokk yi rek ne li ñuy wax lépp nañ nañ jàpp nañ ne ku ci sa dara nekkul nag sa yoon nekku ci mm-hmm. waaw mm-hmm. ku ci sa dara nekkul mm-hmm. sa yoon sëñ bi moom nangu na nga maandu mu maandu waaye boo yoree dara na ko am bokk naa kenn tanetu la kenn rawatu la kon nag fexeel ba participer participer gi nag foo ko defee baax na waaye nag jumaa ji moom ak liggéey bi ñu doon woote moom ni gaa yi tàmbalee ñu gën a néew daal mooy dix mille francs te it sëñ bi nee ku ci feeñ dootoo nëbb yaa ngi nuy cité ku mel ne sëñ Souley Diagne mu a faa nga ci du fu ne luñ mën a wate waxaat wax waxaale ko jëfe mu ngi ci jumaa ji loolu kenn ku ne da ngaa fexe war a fexe ba sa jëf na ci jumaa ji kon nag koo xam ne mënoo ko it sa dix mille francs moom mën naa dugg ci weef bi 77 686 13 13 ñu moytu nag ku ci amut tuyaaba na moytu bu mu ci am bàkkaar ndax loolu it pertement amatuma ca tuyaaba ba noppi am ca bàkkaar moom du bénéfice am amatuma ca tuyaaba mooy joxewuma sama ñaari téeméer sama ñaari junni sama yoon néew ci am naa ca bàkkaar mooy ah gars yi li ñuy wax ay dóor la ndax ba loolu dafa bari ci réew mi am na ñoo xam ne seen bët mu ngi tegg ci xel ma boo xam ne ah gars yi son nañ bu baax tey gars yor nañ oto bii gars yi am nañ tabax nañ seen i kër te fekk nag gars yi ci biir Bàmba ji lañ bokk la lépp léegi nag kon yow boo ci amul tuyaaba it bul ci am bàkkaar mm-hmm. maandu ci kon sëñ sëñ sëñ jili mm-hmm. loo des ci communication. waaw kay xam na fi ñuy fi ñuy fi ñuy tëjee dañuy daanaka dañuy tëj rek. <laughs> ginnaaw waxtu yi li ci desoon moom. Mm-hmm. mel na ne euh, jeex na kon dañuy sant bu baax a baax Lamp Fall mi nga xam ne moom la ñu àndaloon jotaay bi. ndax communi communiqué jotaay bi lenn la ci. Mm-hmm. yi nga xam ne moom lay <laughs> fësale liggéey bi. Mm-hmm. Euh, Lamp Fall taxaw na ci bu baax a baax. mi mi ngi koy jàllale jamono ji ñu toll. Mhm. Euh, ñu ngi koy sant bu baax a baax mi ngi jàll tamit ci Muxaddamatul Xidma TV muy MK mhm. TV. Mhm. mi ngi jàll tamit ci Alxadime TV. mi ngi jàll tamit ci Touba Vision. mi ngi jàll tamit ci as Assalaamy TV. mi ngi euh, jàll tamit ci euh, DM TV. mooy Jaalibatu mi ngi jàll tamit ci Guy Mbind TV. mi ngi jàll tamit ci Rafa TV. mi ngi jàll timit ci box bi nga xam ne euh, daayira MKTV euh, ma nga fa moom tamit ma nga fay jàll muy képp koo xam nekk na ci bitim réew yor box yi nga xam ne moom la ñuy seetaane moom tamit ma nga fay jàll nit ñaa ko fay topp bu a baax xam naa ñu ngi sant ñëpp di gërëm di ñaan ñëpp ñu euh, màggal si ak jàmm fekk fi jàmm dellu dellu tamit ànd ak jàmm li nga xam ne moom lañ doon Euh, wut si di ko bëgg lépp suñ borom mm, yombal leen ko may leen ko euh, defal leen tawféex bu baax a baax ci seeni mbir ci lépp kon ñu ngi sant bu baax di di la di la sant tamit suñu suñu fàllu ni nga jot euh, ni nga jaarale émission bi ci ci ni nga ko tëralee ñu ngi la ciy sant bu baax a baax di sant ñi ngi ko bokkaloon ñëpp rawatina suñu fàllu si la mi nga xam ne moo nekkoon ci wàllu xarala gi. Euh, ak ñi xam ne ñoo nekk ci wàllu régie bi ñu ngi sant bu baax a baax euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon sëñ sëñ Lat. Euh, jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf xanaa ci biir tëj gi rek sëñ Abdou Khadir mi ngi koy wax léegi ñuy beral ak cant tamit koo xam ne jàmbaar la ci liggéey bi muy Baye Cheikh Awa Balla mu Cheikh Abdoul Fadal. Ah, góor dafa am taxawaay bu rëy rëy ci daayiram Xadimu ci fànn yëpp. Mm-hmm. ci fànn gu nekk. Mhm. lu mu xam rek ci loo xam ne luy jëme kanam liggéey bi ak jumaa ji. Mhm. mi ngi ci ak sëriñ Cheikh Oumy mu Cheikh Amadou Fadal moom it waaye tamit sëñ Abdou Samad mu sëriñ Chouaïbou mhm. ak Cheikh Amadou Basir mu Cheikh Abdoul Khadir bëri na daal ay kilifa yoo xam ne. Eh, ni nga xamee ne ni la sëñ Muntaxa doone suñu jawrin nga xam ne moom naka jekk moom daayira bi moom ñoo féetewoo ci seen taxawaay am na ci tamit ay ñu topp ci seen ginnaaw ci ay ginnaawam ñoo xam ne ay rakkam lañ di ay jëwrinam te jàmbaare lool ci liggéey bi euh, ni ki noonu tamit Serigne Baara mu Serigne Souhaïbou Serigne Baara mu Serigne Souhaïbou surtout ci wàllu xarala yi kii wax bëri na liggéey bu rëy yi boo xam ne def na ko ci jumaa ji mm-hmm. ci ventilo yeeg ci caméra yeeg yooyu yëpp ñu leen di sant bu baax di leen gërëm Euh, Serigne jiiri wax na ko léegi dafa am tamit taxawaay bu am solo boo xam ne fondation Moukhaddamatoul Khidma bi nekk Amérique mm-hmm. mënuñu leen a ñàkk beral ak cant ndax mm-hmm. euh, FONCAB mu wax na ko léegi sëñ falu sàmbu FONCAB la jiite mooy fondation euh, nord américain mm-hmm. dañu invité woon daayira Moukhaddamatoul Khidma ngir ñëw ci na Cheikh Ahmadou Bamba bi doon am Detroit daayira bi yabal ma fa man ak sëñ Assane Diop ñu dem fa taxawal fa daayira bi leeral liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma ci ay jëmm fekk sëñ sëñ soxna Njaxat joob ñoom ak sëñ am sotulaam ña nga fa naka jekk di liggéeyal Muxaddamatul Xidma foofu mhm. waaye bi ñu gisee déclaration boobu ñu def ci kanam sëñ Mamor Cheikh Amadou sëñ Mouhamadul Mourtada mhm. dañ ko ak cantu boppam nag wallaahi sëñ Mamor xanaa waaw bu daayira bi demee Europe tisaaroo ak Amérique mhm. wax dëgg yàlla ci ay taxawaayam la ndax moo wax sëñ aafe fii ne nañ ma booleek ndaw ñu dem def tournée ñu def tournée ma di demoon naa ak sëñ Assane Diop sëñ Abdoulaye Mass ñu def tournée ci Europe gépp ba Amérique fondation bi nag ñoom bi ñu gisee loolu lañ ne eh, bëgg nañoo liggéeyal sëriñ Touba ci fand gi ñu taxawal benn fondation boo xam ne Amérique may na ko muy fondation Moukhaddamatoul Khidma créé ko ci moom ay membre ñu jaarale ko ci wàllu jumtukaay yi xarala yi nga xam ne Amérique amuñ jot suñ suñ wax na rek muy www touba mosquée point org boo ci duggee su la neexee léegi nii nga joxe léegi dix dollars wala wala wala mm, vingt dollars loo bëgg rek hmm. moo xam ci paypal wala crédit carte ak yu demee noonu ñoom seeni jumtuwaay la yoo xam ne léegi day yomb lool ci nit ki dëgg la loolu tamit nag muy liggéey bu am solo boo xam ne <coughs> bu màggal jubee xaalis bu bari lañu ñu andi koor noonu <coughs> gàmm noonu entretien bi noonu te te daanaka doo leen dégg euh, ci lu néew bur wi daal <coughs> kon ñu leen di sant bu baax occasion la ci ñu sant leen di sant Serigne Assane Diop mi xam ne mooy coordonné liggéey bi Euh, sëñ Mafari Ndiaye ci Afrique bi ak mboolem daal ñi nga xam ne ay jawriñ lañ <coughs> tey liggéey liggéey bu am solo ak sunu kilifa yi nga xam ne ñu ngi ñuy jàppale toujours di leen sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëñ Abdoulahab jërëjëf sëriñ Jili Bousso jërëjëf sëñ Abdou Khadir Niang ñi eh, xam sëñ Makhtar Kane eh, jërëjëf El Hadj Fallou Sylla ak ñi nga xam ne ñoo seqam jotaay bi nekk ci réseau bi ñu ngi santaat bu baax a baax Euh, Lamfal télévision ci njiitu sëñ Aliou Thioune ndax xam ngeen moom naka jekk euh, yéeneem ak bëggam moo doon liggéeyal sëñ Tuubaa ci jumaa ji rawatina jumaa ji ana wax ne su ma dundoon bay def direct julli ajuma ak jumaa ji li ma bëggoon lépp am naa ko rawatina nag tey jii ñu nekk ci waajal màggalu Tuubaa gi euh, di amele émission bi fii ci jumaa ji muy delluwaat di dem ca télévision Lamfal TV kon ñu ngi sant bu baax a baax ci taxawaay di sant sëñ Ibrahima Gueye seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo nekkoon ci micro bi feggoo woon ak euh, daayira Muxaddamatul Xidma ngir waajal Màggalu Tuuba ma fàttaliwaat mbokk yi rek ne 77 686 13 13 bu subaa numéro boobu na tisaaroo ci àdduna bépp kenn ku ci nekk na ko estati wane ne sa 10 000 daal bu ci jaaree dana ñëw directement ci jumaa ji ñu defal la ko ci liggéeyub Sëriñ Tuuba bi ngir santale ko boromam subhaanahu wa taala yàlla mi nga xam ne am pay te xam fi sëñ nga xamante ni bii sunu cant ci yàlla lott nañ ci yàlla li ñuy wut ci sëriñ bi yàlla nañ ko am li sëriñ bi bëgg ci ñun yàlla na ko am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.